jërëjëf ci ànd ak taamu bi ngeen taamu seen rajo ITFA fa Tidiane Foundation of America rajo ITFA doon rajo bi nga xam ne dafay fasciné ànd ak yéen ci lépp li nga xam ne rek moom moo soxal diine bi rajo fa yamu ci dafay wéyale ak yéen ci ay émissions yees jëm ci wàllum actualité dolli ci rajo ITFA mi ngi leen dencal ay programme yu bees jëm ci lépp li nga xam ne rek moom moo soxal askanu waa Sénégal ak askanu waa Gambie yi nekk fii ci Amérique ak gox yi ko wër rajo ITFA daal rajo bu wóor tey leeral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 Foundation of America ñu ngi leen di nuyu di leen ziar yàlla mi am jàmm ak salaam ak sutura yàlla nañu yàlla di ramadan yàlla di ñaan yàlla yàlla nañu yàlla may ñu teewee ko yeneen i déwén waaye ñuy tàmbali rek programme bi ni ñuy def mooy nuyu ñëpp ziar ñëpp ci turu sëriñ bi ndax tabaarakallahu sëriñ Sidi Ahmed si bu maam Habib si bu maam Cheikh Sidi Laaji Malick si nekk na ñun nekkin rafet fii ci États-Unis d'Amérique yàgg ñoo jiite ñuy ñaan yàlla yàlla na yàlla na ñu yàgg jiite mu ànd ak wér ànd ak tal ak fekkee tabaarakallahu ndax euh, ku ne xam na ne jamono ji daan na ko fekk mu daan def tuuru Amérique seeti mboole seen luy xadara fii ci United States of America dem saafonteeg mbokk yi ñaanal leen ziar leen dal di delloo fedd li kóllëranteem ak wëllëranteem ak taalibe yi kon tabaarakallahu bu yàlla dogale circonstance yi ñu nekk ci muy Covid ku ne xam na ne jote yeeg dajaloo bi mënatul ne waaye tabaarakallahu mu indil ñu lii ñu am ko am possibilité di ziarante ci suñu biir di saafonte waaye di. laayante biir ci suñu diine kon sans plus tarder dañuy dellowaat rek ne kàddu gi ñu ngi koy jël ci turu sëriñ bi di ziar képp ak ku nekk koo xamante ne nii yaa ngi ci ITFA di Islamic Tijaniya Foundation of America mboole seen xadaraat yi ñu ngi leen di ziar ci turu sëriñ bi ci li nga xamante ne nii moo di shahru ramadan mubarak allazi kon tabaarakallahu ñu ngi leen di nuyu di leen ziar di leen ndokkeel di ñaan yàlla lépp luñ ci jaamu yàlla nañu ko yàlla nangul rëcc rëcc bépp bu ñu mësaam ci àdduna yàlla nañu ko yàlla jéggal te fulal ñu ko defal ñu ko kon tabaarakallahu noonu la ñuy demee rek régie daal di nuyoon ki nga xamante ne moom la ñu feggoog ci li nga xamante ne moo di programme bi xam naa tabaarakallahu xaaj jabel joom dinañu dab waaye bala ñuy dugal xaaj jabel joom rek dañuy delloowaat tabaarakallahu ni ñu ko daan defee indi leen li nga xamante ne moo di programme bi moom bu ñëwee indil ñu ko daal di ñu wax tabaarakallahu lan mooy li nga xamante ne moom la ITFA taxawee ak yan taxawaay la ITFA am ci communauté bi buñ ci jógee nag daal di dugg ci li nga xamante ne dëgg-dëgg moo di programme bi Haj Jabel Haj Jabel waaw tabarakallah mu melni dafa am problème connexion kon ni ñuy def rek moy xana duggal len ci li nga xamantene ni modi programme bi di len wax ne Islamic Tijaniya Foundation of America Radio nek na programme bo xamantene ni every Thursday ak every Friday lañ leen koy indil ci jamonoy koor nak ñu ngi leen koy indil tabarakallahu from 10 to 12 manam diggante 10 10h ba minuit nga xamantene ni nit ñi bu ñu ndogo ba pare dinañ am possibilité ñëw connecté wu daldi safonté ak ñun ci li nga xamantene modi channel bi waaye duñ ca yam ndax tabaarakallahu am nañ li nga xamantene ni modi programme njàngum bi nekk Tuesday Saturday ak Sundays nekk from one to two pm di heure New York wala tafsir quran tafsir Quran, wala tafsir hadith ñu ngi koy am euh, ci jamono joju from two to three pm kon tabaarakallahu képp koo xamante ne nii yaa ngi bëgg suivre yooyu programme boo ñu followee rek ci zoom muy 202 957 48 32 ci heure boobu ma joxe léegi di nga mën a connecté wu ci li nga xamante ne moo di zoom bi mën a topp programme bi waaye képp ku ci bëgg lu la leer mën nga dem woote ci ki nga xamante ne moo di Haji Cheikh Dial nekk te Philadelphia ci 267 688 8980 wala nga woo sëriñ Cheikh Ahmed Tidiane Seck ci Rhode Island moom mu ngi nekk ci 401 451 5498 wala tabarakallahu nga woo soxna Ami Sarr moom mën nga ko jot ci 401 261 2701 tabarakallahu sëñ Assane Thiandoum Baltimore mën nga ko jot 443 255 6477 waaye mën nga jot tamit soxna jeewo ba ci 206 931 1895 wala soxna Hadja Ndoring Guèye ci 201 993 09 23 kon tabaarakallahu rek xanaa ñu profité waale di souhaiter a happy birthday ci soxna Ndoring Guèye di ko ñaanal yàlla yàlla na yàlla gën a guddal fanam gën a dëgëral taxawaayam lépp loo xamante ne mbébétam la ci it fa yal na ko yàlla gën a dëgëral gën koo fulal mayal ko ci defal ko ko ci ay tuyaaba waaye tabaarakallaahu mbokk yi balaa ñuy dugg ci programme bi ñu di leen fàttali rek ne dugg nañ ci weeru koor waaye comme dugg nañ ci weeru koor ku ne weeru koor sa xel dem ci muudum koor mooy bu koor gi demee ba jeex li nga xamante ne nii moom ngay génnee comme sarax waaye tabaarakallaahu ku ne weeru koor sa xel munul ñàkk daj ci li nga xamante ne nii moo di azaka mu di zakatul fitr mooy bi ma doon wax léegi wala azaka rek bi nga xamante ne tabaarakallaahu suñu borom digal nañu ko mu am ay lim yoo xamante ne boo ko amee ci wàllu koppar wala alal wala lu mu mën a doon boo ko dajalee muy at ba at am na loo ca war a génnee kon tabaarakallaahu ku ko bëgg génnee boo ñëwee jokkoog ñi nga xamante ne ñoo di waa it fa tabaarakallaahu di nga ci am li nga xamante ne moo di mbégte ndax ni ñu koy doxalee mooy tabaarakallaahu buñ ko dajalee ba mu ñoŋ dañuy seet ñi nga xamante ne ñoo di suñu mbokku sénégalais yi wala gambien yi nga xamante ne yeeyoo nañ ko ci suñu communauté ñu daal di leen koy jox tabaarakallahu mu amal leen njëriñ kon ñu ngi fàttali rek mbooloo mi nga xamante ni nii ñu ngi ñuy suivre ne tabaarakallahu bu fekkente ne bëgg nañu joxe benn donation bu mel noonu ci wàllu euh, tabaarakallahu li nga xamante ne moo di zakatul fitr di li nga xamante ne moo di muddum koor wala azaka bi nga xamante ne moom la ñu suñu borom digal ñu war ko génnee at mu mën nañ ko yónnee ci li nga xamante ne nii moo di Euh, cash app da ngay def dollar sign it for USA wala 202 763 5253 maanaam 202 763 52 53 mooy cash app bi tabaarakallahu mën nañ ko tamit yónnee ci li nga xamante ni nii moom moo di zel bi zel bi nag day doon tijania foundation at gmail dot com tijania foundation at gmail dot com xamna bu ci kanamé dinañ am kenn ci régie bi mu daldi dugg ci li nga xamante ni mom moy walu woowu gën ñuko léral gën ñuko ko firim kon dal mbokk yi nga xamante yéen ñuy suivre fi ci Itfa Tidiania Foundation of America ñu ngi leen di nuyu di leen ziar ci leen ziar di leen wax ne rek ki leen di indil kàddu gi moy seen mbokk seen xarit Ibrahima Diop fi ci studio Darul Habibi New York Itfa studio bu New York di leen indil kàddu gi ñu jëgmal nag li nga xamante ni moo di ramadan nekk ci biir nekk ñetteelu fan ñu leen ciy ziar di leen ñaanal yàlla xanaa sans plus tarder ni ñuy def rek mooy dem régie bu fekkente ne invité bi tabaarakallahu moom daal di nay pare ñu daal di mën a ànd ak moom ci li nga xamante ne mooy suñu temu tey tey ñu ngi fas yéene waxtaanee li nga xamante ne moo di philosophie koor muy maanaam naka la naka la koor njeexital bi nga xamante ne koor moom lay moom lay war a def ci nit waaye lan la nit war a li nga xamante ne moo di chahru ramadan kon tabarakallahu régi bu fekkente ne suñu invité tey di imam Abdoulaye Ndaw pare na ñu daal di ñu koy jox rek incha allahu taala ñu ànd ak moom ci waxtaan bi mu mun ñu dugal ci thème bi imam Abdoulaye السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته إمام نيغلي نيو دي لزيار مرحبا جوب نيغي نانغو دين دي لزيار اللهم آمين نيغي دلو نوكيل دي يالنا نيكو يالا نانغول دي نيان يالا لب لو نيو وقتاني تاي يالنا دون نجري نيو أيشا آمين يا رب اللهم آمين يا رب آمين يا رب بارك الله إمام داو نيون دوتو نيو كو بريزانتي ndax yakarna kep ku min jotaayu itfa tabarakallahu miin nga ay waxtaanam waaye miin nga ay waxtaanam yi nga xamante surtout mi koy jëmale ci ndaw ñi nga xamante ñoo ànd ak ñun ñu di suñu doom suñuy jarbat kon tabarakallahu imam tey ñu ngi war a waxtaane li nga xamante ne moo di philosophie koor lan nga ñu indil lan nga fas yéene waxtaan ak mbokk yi incha allahu taala tafadal assalaamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuhu alhamdulillahi wa barakatuhu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 ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم يا همة الشيخ احضري لنا في هذا المحضر وتعتفي بنذر تأتي لنا بذفري ما بعد بوكي حضر بي بوكي جلدي نجلين دنيو نيو بالإسلام دي السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته جيتل تنيو بي سيدي أحمد سي di leen ci koor gi di ñaan yàlla mu nangul ñu sunu koor may ñu ñu fekkee kooru déwén ak i déwén ak i déwén yàlla musal ñu ci mbas mi nga xam ne moo lëmbe àdduna si ba ñu bokk ci ña koy nettali ëllëg képp koo xamante ne nii nattu dal na ko ci mbas mi yàlla na ko ko yàlla teggil ñi nga xamante ne nii faatu nañ ci yàlla yërëm leen taxaari leen aljanna ñi nga xam ne dalu leen yàlla musal leen ci ba mu ba bañ leen a dal ci barki yent bi sallallahu alayhi wa sallam sunu mawdu tey nag ñu ngi koy jàpp ci koor philosophe ak waajalu koor yàlla borom bi subhanahu wa taala bokk na ci ay kéemtaaneem mu tànn bés yi tànn ci ay bés wala mu tànn ci ab bés mu gën ca bés ya bés yépp àjjuma ci gën mu tànni bërëb jël benn def ci muj gën ci bërëb yi bërëb yépp makka ci gën yàlla tànn nit ñi bind nit ñi tànn ca ka ca gën kuy dund seydina muhammad moo la gën sallallahu alayhi wa sallam yàlla yi tànn ci weeru Ramadan mu gën ci weer yi waaye Ramadan gën gi mu gën ci weer yi mooy dafa nekk shahru Ramadan alladi unzila fihi alquran wàcce giñ ci wàcce alquran moo tax Ramadan gën ci ci weer yi kon moo tax dañu naan ramadaanu ka shamsun bayna alkawaakibi Ramadan buñ koy xool dafay mel ni jant bi taxaw jàkkaarlu nga di ko comparé ak étoile yi nga xam ñoo nekk ci kaw asamaan si ramadan nag buy ñëw dañ koy waajal waajaayu ramadan dafa bari ay façon yuñ koy waajalee bari na ci ñun ñoo xamante ne nii bu fekkente ne surtout ñun nga xam ne ci ay immigrant lañ fii ci dëkk bi sunu waajaay def fois da ngay toog sax bu weeru koor jotee sa xel di dem ci fonde ya meer yi daan toog wala nga lax ya ñu daan defar ba bu timiste jot sax mu lay xeeñ nañu ko daan waajalee wala yaa ngi fàttaliku am na ñoo xamante ni kon seen waajaay nammeelu weeru koor mooy nammeelu fonde yooyu ak xadd yi ak ak reer yeeg ak lañ lam daan àndal ci weeru koor ca bañuy ndaw ci Sénégal wala ca Gambia wala fu ñu mën di am na ñoo xam ne seen nammeelu koor wala li ñuy yàkkamti ci koor ñi ngi fàttaliku daje dem seetente bi dem invitante ndogu yi dem joxalante waaye am na ñoo xam ne suukaru koor yi lañu ñu yàkkamti ci weeru kor am na ñoo xam ne am na ñoo xam ne waaye am nañ tànneef yoo xamante ni ñi seen séentu koor ma nga nekk ci la ñuy namee koor mooy ya la ñuy namee moy mooy ruku ya la ñu namee koor mooy dajaloo ca jàkka ja la ñuy namee koor jaamu yàlla ga la ci yàlla dige ci biir weeru kor kon ñooñuy beneen façon nit lañ ñoo xamante ni ñi ñii la séentoo koor kon koor dafa am istiqbaalu nafsaani istiqbaalu nafsi wala psychologiquement am na nuñ koy séentoo psychologically am na noo xam ne moom ngay séentoo koor te mu wuute ci nit ñi yàlla ñu yàlla boole ci ñi nga xam ne seenu séentu koor mooy la ñuy nambu ci koor mooy la koor àndal ci yiw ya nga xam ne moom la àndal moom lay àndal sa salaf salafu saalix yi jiitu woon ci gannaaw ci gannaaw yonent bi sallallahu alayhi wa sallama wala ñenn ci saxaaba yi dañ doon toog juróomi weer wala juróom benn weer di ñaan yàlla mu may leen ñu fekkee weeru koor allahumma balligh na ramadan bu weeru koor ñëwee ba ñu woor ko ba noppi ñu ne allahumma balligh na ramadan wa sallimhu wa tasallamhu minna maqbula suñu paree ñuy ñaan yàlla mu nangul leen ko juróom benn weer kon ñooñu seenu céntu koor mooy exemple bi nga xamante ne nii ñun ci lañ war a roy waaye ñun nag sunu seentu koor kon koor dugg ci dafa am loo xamante ne nii moom la laaj balaa ñuy wax sax ci falsafa bi ci ci philosophe koor gi ci boppam nan lañuy duggee ci biir koor gi comme dugg nañ ci ba noppi doomu aadama yàlla def ko bind jox ko benn cër boo xamante ne nii ci moom moom la yonent bi sallallahu alayhi wa sallam wax ni doomu aadama am na lekk lu nekk ci moom loo xamante ne nii su baaxee lépp baax na su bonee dara baaxatul ala fil jismi mudga إذا صلح صلح الجسد كله إذا فسدت فسدت الجسد كله ألا وهي القلب ci doom aadama am na cër bu ci nekk boo xamante ni ni su baaxee lépp baax su bonee lépp bon te nee na loolu ab lumb la te loolu mooy lan mu ne mooy ab xol kon xolu doom aadama moo yor lépp xol boobu nag la yàlla di waxal yàlla mu ne ci alquran yawma laa yanfau maalun wala banun illa man ata allaha bi qalbin salim bés penc mu ne yow moon yawma laa yanfau bés bi nga xamante ni nii dara mënu faa jëriñ kenn dara mënu faa jëriñ kenn du doom du alal ju la mën a jëriñ bés booba lu dul ñi nga xam ne ñëw nañ wuy si boroom boobu subhaanahu wa taala bi qalbin salim ànd ak xol boo xamante ni dafa laab te xool nag boroom xam-xame ñu ni yasda yasdaul qalb kama tasdaul maadin de dafay xomaag comme ni yenn métal yi di xomaagee te métal bu ci nekk am na luñ koy raxasee la ñuy purifier or bokkut ak la ñuy nettoyer argent wala përëm wala leneen mais lu ci nekk am na lu koy nettoyer ba mu set lu ci nekkit am na lu koy tilimal ba mu jël tilim booba xool nag la koy tilimal ñaari façon la benn bi muy alxafla heedlessness maanaam càggante wala fàtte yàlla wala takunu kalladina nasullaa fa ansahum anfusahum bu leen mel top mel ni nga xamante ni fàtte nañ yàlla nasu zikrallah fa ansahum dhikra ñu fàtte nañ yàlla yàlla fàtte loo leen seen bopp kon loolu mooy ghafla mooy ñàkk a tudd yàlla te li la ciy génne kon bu xol tilimee te tilim la ko tilimal di ghafla maanaam sàggante wala fàtte yàlla la koy delloo siwaat setal kom mooy ak zikru ngay tudd yàlla xol it dana tilim te la koy tilimal mooy ay bàkkaar ak zunub ak zunub nag la koy génn ci xool du istighfar de waaye bala la ba mooy nga tuub dellu ci borom bi subhanahu wa taala borom xam-xam yi nag dañ ne tuub dafa am ñetti façon dafa am ñetti condition mooy nga arrêté li ngay def keroog ba nga yëgee ne li ngay def baaxul beneen bi nga fas yéene ne dootoo ci dellu banaa ko ta duma ci dellu beneen bi nga ñaan borom bi subhanahu wa taala mu jéggal la ko yii bokk na ci li nga xam ne kon mooy li nga xam ne mooy nekk ci xolu doomu aadama ba mën koo melal noonu weeru koor nag naka lay jublu see bu ñëwee di weer bi nga xamante ne yàlla may nañu ci ñu mun a purifier xol yi ba mu set ba nekk buy dem di wuy ji borom bi subhanahu wa taala nekk xalban salim xol bu set xol bu sell waaye nag kon tuub googu nga xamante ne ni moom la ñuy soxla ci doom aadama mooy lan mooy tawbatun yet bi yas yasxabuha nadam tuub goo xamante ni dafay ànd ak riccu réccu ala kulli tafrit ci lépp loo xamante ni doomu aadama bi sàggane woon na ko rëcc-rëcc yi nga xam ne doomu aadama yi defoon na ko te rëcc-rëcc amut limite amut limite numu mu mën toll borom bi dana ko jéggale subhanahu wa taala maa ngi dugg si ci koor gi wala dugg naa ci koor gi maa ngi réccu de naa toog xalaat li ma def taaw ci lépp loo xamante ni ni onze mois yi jàll rëcc rëcc la naa ko jéggul borom bi amut nu mu mën di toll yàlla def la koy jéggal ndax moo ñu ko dig ci alquran qul ya ibadi alladhina asrafu ala anfusihim la taxnatu min rahmatillahi inna allaha yaxfiru dunuba jamia aw Muhammad waxal ma sama jaami ne leen bu leen désespéré mukk ci sama njëgal man dama leen di jéggal mbooleemi bàkkaar Abu Zar dafa ñëw ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ni ko bu nit bàkkaaree ñëw cuub ko ci yàlla ndax yàlla dana ko jégal mu ne ko daf ko koy jégal mu ne ko mu dellu def bàkkaar bu ni mel mu ne yàlla jégal ko ko mu ne mu dellu def bàkkaar bu ni mel mu ne yàlla di ko wax ba mu ko ñeenteelu yoon bu yonent ti ne ko roxuma am fi Abu Zar yaxfirullahu lahu xam naa ne Abu Dhar neexu ko waaye terewul yàlla daf ko koy jégal ndax lan ndax xam na ne lahu rabbun yaghfiru dhunuba fastaghfara fa ghafara la xam na ne am na boroom bu jéggale bàkkaar mu ñëw jéglu ci moom kon mu jéggal ko kon tuub ala kulli tafrit nga dellu tuub ci lépp loo xamante ni càggante goo defoon la wala rëcc-rëcc bu la daloon la nga ànd ak tasmim dëggu ak fas yéene alal wal istidra istidrak nga jema dolle ko ci li nga xamanteni ni moy li dess ci sa dundu ak dabantal li nga xamne moy li la rëccoon ba bu boromee borom bi jégalu ko tuub tawba bi nga da fay nek tawbatul abd alima aw arafa qadrahu jam bi nga xamne xamna mom nan la tollu xamna ne mom daif la ku new dole la ku ku tële la ku ñak la amu dara borom bi subhanahu wa taala mo am mu ñëw wàcce boppam toroxlu ci kanam borom bi jéggulu ko ànd ak inkisaar toroxlu ba ñëw ci borom bi subhanahu wa taala pour yàlla jéggal ko balaa muy dugg si ci biir ramadan tawba tuub goo xamante ne ni yataxalla fi al mumin an kulli madlama jaam bi day ñëw lépp loo xamante ne ni mas na koo def ci tooñ ci naka sa du noona jëmale ko ci beneen moroomu jullitam mu delloo ko ko tax xam ne yàlla dana jéggal bàkkaar bu nekk ba mu des bàkkaar bi des sa diggante yow ak sa moroom sa moroom moo lay jéggal sa bàkkaar kon booy dugg si ci weeru koor wi bu ci dugg si te yor ak jàmbur te delloowuloo ko nga mën a yegg si moon ci biir ramadan bila aayaq doo ànd dara luy nekk obstacle sa diggante ak borom bi subhanahu wa taala ba boo ko ñaanee mu nangu sa ñaan bañ la koo delloowaat tawbatun yutahiru bihi nafsun min al xasad yutahharu bihi nafsu min al xasad nga ñëw tuub ànd ak tuub boo xamante ne nii da ngay purifier sa bopp maanaam da ngay setal ki sa bopp ci kañaan kiñaan bo bokk na ci bakkaar yu magi ndax dañ koy boole ci kabaa'ir yi mooy nga gis nit am dara nga yé yéenewuloo ko nga iñaanee ko ko iñaanee ko ko mooy boo sañoon loola dañee ci moom toxu ci yow wala mu dañ ci loxoom rek tam bañ koo yor kon nit mënta dugg si ci biir weeru koor te ànd ak ki ñaan ci biir xolam boo xamante ne nii da koo jox da koo yor digganteem ak moromam moo tax imaamul Ghazali liste leen ci benn ci téeréem bi ixyaaul ulumu diin liste leen comme amradul qalbi amradul qalbi the diseases of the heart wala feebar yi nga xamante ne nii mooy dal xolu doomu aadama kon doomu aadama yi balaa mu dugg si ci weeru koor na taqale boppam ak ak xasad bi nga xamante ni mooy dox diggante mag moroomam wala jàmbi moom la yàlla da ci suuratu alfalaq wa min charri xaasidin ida xasad ñaan ñu ñu ñuy muslu wala dénk yonent bi salallahu alayhi wa sallam te dénkaane mooy dénk ñu ñu muslu ci ki te ki ñaan bés bu demee bay jëfe ak ki ñaanam tuub dellu ci borom bi tuub cig nay doomu aadama ku joxe duñ la jox ndax yonent bi sallallahu alayhi wa sallam moo waxoon ne ma atil munfiqa wa waatil mumsika talafa kuy joxe yàlla jolli ko waye ku tie baña joxe lamu joxe yakku ci loxom kon joxe mom lañ ñu sant ndax yàlla mo ñuy wax ci alquran anfiqu mimma razaqnakum min qabl an yati yowmun la bayun fihi wala khullatun wala shafaa walkafiruna humu zalimun joxe len ci li ñu len dénk balaa bés bi nga xamante ne ni benn transaction dootu fa doxati te ku ko deful ñoo ñëwal kaafiruna humu zaalimoon joxe balaa bés bi di ñëw nga xamante ne ni rabbi lawla axartani ila ajalin qaribin la asaddaqanna wa akun min asalihin dootu la fa jëriñ dara yàlla may ma tuuti rek de ñëw nañu ne ña ngi koy ma ngay waaje de mi ngi ci feebaru sukuraat mu naan may ma ma delloo du ne du ma delloo saraxe du ma delloo julli wala ma woor wala ma def lenn waaye yàlla may ma chance ma dellu ndax su ma delloo dinaa saraxe kon tuub ci yii la doom aadama yi war a góorgóorlu def ko bala bés balaa muy nekk too late ndax jamono dina toll foo xamante ne ni doomu aadama bi tuub dana ko tële dana ko jafe ba nga xamante ne bi dootu am occasion wu tuub jëm ci borom bi subhanahu wa ta'ala kon ci tënk lii mooy nga moom ngay duggee si ci biir weeru koor so dugg see nag ci biir weeru koor am na yeneen yoo xamante ni war la la yow muy doom aadama bi nga xam ne borom bi subhanahu wa taala moo la may occasion boobu xoolal yow force bi nga am jàppal ne weeru koor bi force la boo xamantene ni lan tauna ilayka abada occasion la boo xamantene ne ni dootu dellu si mukk dootu del si mukk boo la xasee ba rëcc rëcc ne la te dootoo si jotati ndax lan déwén mën naa am da ko fekkee ñaata nit lañ fi xam ñoo xamante ne nii ñu ngi leen di wooteel di leen jaale di leen ñaanal wala di leen laajal ci biir xadara bi yoo xam ne woor nañoo ñun daaw terrain ñu duñu woorandoog ñun ñaata nit ñoo nekk ci koor xoolal tout récemment bu ñuy wax réfugiés yi nga xamante ne nii ñu ngi jóge Mexico ñu ngi ci border bi ànd ak njaboot yi ñu tënk leen ci barab xoolal réfugiés yi nga xam ne ñi nga nekk Syrie xoolal réfugiés yi nga xam ne ñi nga nekk n'importe où te mënuñu mënuñoo fexe ba dem ci seeni mbokk te man ak yow fi mu ne tey bu ndogu jotee yàlla ñu baaxee ba bu ñu ubbee suñu frigo lu ñu fa mën a fekk lu ñu bëgg a lekk ci la ñuy lekk wala bu ñu soxlaa suñu njaboot suñuy soxna wala ñun ñu toggal suñu bopp li nga xam ne mooy li ñu neex kon bu la yàlla mayee loolu da ngay xam ne yow tànneef nga yàlla moo la tànn jagleel la loolu nga war koo gërëmee borom bi subhanahu wa taala gërëm yàlla nag nekkul ci toog yor sa kurus naan alhamdulillah loolu zikro la ndax gërëm yàlla al shukru min jinsi ni'ma bala yàlla maye ba nga di ko sant da nga koy sant ci façon ba mu la may bu la mayee doole da ngay dimbale way néew ji doole bu la joxee alal da ngay dimbale way ñàkk ñi bu la joxee xam-xam da ngay xamal ñi nga xamante ne nii xamuñu kon xam-xam loolu dong la ñuy mën a jëriñ kon weeru bu ñëwee dañuy ixtinaam fursa bi maanaam dañuy parafito ci occasion bi balaa mu ñëw rëcc ndax waykat bi dafa wax mu ni atar ramadanu mazraatu libaadi li tatxiyi lqulubi min alfasaadi fa addi xaqahu qawlan wa ficla wa zaaduka fattaxidu lilmacaadi faman zaraca alxububa wama saqaaha ta'awaha naadiman yowma alxasaadi mu ne dikk na di weeru koor di tool boo xamante ni ñaal na mbooleem jaami yàlla li ko tax a jóg mooy purifier maanaam setal xol yi ci façade ci yàqute gi nga xam ne xol yi yàqu woon nañ ko mooy li ma la wax ci commencement bi onze mois xol yi di ko tilim ci ay bàkkaar kon ramadan bu ñëwee li ko tax a jóg mooy setal xol yi fa addi xaqahu jox koy droit am ba mu mat sëkk xawlan wa fialan ci jëf ak ci kàddu jëf ji muy jaamu yàlla yi kàddu yi muy zikkar yi ak jàngum alquran mi wa zaaduka fi lmiaadi wa zaaduka fattaxisu fi sa sa yóbbal gi ngay soxla yowmal qiyaam jëm koo dajale ci période bi balaa bés boobu di taxaw fa man zaraa képp koo xam ne bay nga sa tool wala ji nga saw jiw wama saqaaha te roose wuloo ko dana ko réccu bés bu góob jote ndax bu nit ñi góob tool bu ñu roose woon te ndox ñëwu fa boroom dana toog di ko regretter di ko réccu kon ñu sant yàlla borom bi subhanahu wa taala ci opportunité bi nga xam ne jox nañu ko bañu man di woor ci wéru koor ak force bi ñu ko joxe ñu ànd ak sunu wér gi yaram ànd ak sunuy cër yu mat ba dara téré wu ñoo woor ànd ak xel mu dal ndax ña nekk siri bés bu jot ñi ngi sentu ku leen bombardé sunu mbokk julit yi nga xamante ni ña nga nekk myanmar sunu mbokk chinois yi tëj leen ay julit yoo xam dañ leen di forcé ñu bañ a lekk ñu ñu bañ dañ leen di forcé ñuy wat seen sikkim dañ leen di forcé ñuy naan sangara dañ leen di forcer ñuy ñuy lekk pork te bi mu taxawee di problème euh, bi ñu ko yóbboo Nations Unies di ko wax di ko fa kaasi benn réewu julit taxawul di leen défendre benn réewu julit taxawul di leen défendre moo xam muy réewi araab yi moo xam muy réewu africain yi européen yi ak yeneen dëkk yi nga xamante ne ni ñoom déclaré wuñ que ne ay pays musulman lañ ñoo gën a défendre jullit ya nga xam ne ña ngi leen di sonal fële mais ñun nga xamante ne ni ñooy suñu bopp ay jullit lañ dimbalewuñ leen wala yëguñu leen takat yonent bi sallallahu alayhi wa sallam daf nañuy wax ne ñu man laa yaxtamu bi umuril muslimina fa laysa minhum koo xamante ne ni affaire yi intéressé wu ko kooku bokkatul ci ñoom kon weeru koor bi bu jotee ñuy woor nañu xalaat ñële nañu xalaat sunu mbokk yële ñu dugg nag ci philosophie lan moo tax ñuy woor boo seetloo jamono yàlla borom bi subhanahu wa taala rek motax ñuy wor ndax ñun ay julli lañ waye dañu toll ci moment bo xamanteni ni di dund ci environnement bo xamanteni ni nii lu tax ngay wor nga ne ibada la parce que lolu moy tontu julit jaamu yalla la lolu tax may wor dama war wor di wor damay jaam ñu sante ma ma def ko ndax lan ndax yalla mo ñu wax qalu sami'na wa ata'na ghufranaka rabbana wa ilaykal masir deg nañ te top nañ ñu ngi sentu jéggalante jéggalaake ci yow borom bi subhanahu wa taala kon tontu woor lu tax ngay woor nga ne dama dañ mako sante may woor du réponse ma bi may préparé da pour mawdo bi ma gis ben paper bo xamantene bi majmuatul a'imma al européen manam association des imams européens ñoko bind ñoko ño préparer mawdo bi di ci wax di ci wax ci lu mel ni limaada nasum mu bokk ci loo xamante ne nii boroom xam-xam yi dëppoo nañ ci mu ànd ak Qur'an ak sunna benn bu ci njëkk bi li nga xam ne mooy limaada nasum lan moo tax ñuy woor su la ko nit laajee ci dëkk bi la njëkk mooy maqsadul insaani benn raison bi tax mooy dama ci jublu ma am sama insaaniya sama imaan utile moom lay yëngal dafay yëngal gariza imaan insaaniya bi ne ci man manam daf may tax ma yek li nga xamanteni ni mom la ñeneen ni di insaan bo xamanteni ni da fay xif yow ya mom sa bop lek ngi taxaw nana ngi taxaw boole wala sey ak sa soxna mi ngi dagan na la nga xagn ko sa bop xagn nga sa bop lek xagn nga sa bop naan ci ay waxtu yu ñu limité nga mëna xalaat ne am keneen ko xamanteni ni ki kii danay tok ay fan du lek du naan te dara waraluko lu dul ñàkk amut lu mu lekk amut lu mu naan moo tax du ko def am na ñoo xam ne ñi ngi woor tey te suñu wooree ba noppi amuñu lu ñu doge am na prison yoo xamante ni ñi fi mu nekk ni ñi ngi ci kaso bi dog bu jotee amuñ duñ mun a am tàndarma am na julit bu nekk ci kaso yi fii damay jokkoog moom mu woo ma téléphone mu ni may maam dama soxla woon nga dimbali ñu ci tàndarma daaw lañ ko commencé woon di ko ak seen prison bi pour ñu may ñu ñu jëndal leen caisse tandarma ndax su korite joté du ci biir koor gi de mënuñu ko duñ leen ko jox ci koor gi su kore gi joté ñu mun leen ko jox ñu celebrate ko seen rite dañ ko bañ ren ñi ngi am yaakar ne xeyna bala koor gi jeex danañ ñu may ñu jox leen ben caisse tandarma bu 11 pound ñu mun ko yor pour sédélé ko julit yi bésu id imagine toi yow ak man ñuy or yor caisse tandarma timko, ko ñële mënuñoo am benn tàndarma ci biir weeru koor gi lu dul bu kori jotee kon loolu warta weesu sant yàlla mënu la paase loolu yàlla mi la may yow loolu te xañ ko ñële te gënoo leen nattu la bu leen yàlla teg ak nattu bim la teg yow bam leen teg muy xool ñoom nan lañ koy muñee yow bim la teg mu xool yow nan nga koy sante ndax ëllëg mën ngaa nekk foofa ci seeni tànk kon lii nattu la bu leen yàlla jox sa tajwi an nafsi bi yow ngay def xiifal bi ngay xiifal sa bopp xañ gi ngay xañ sa bopp lekk ak naan pour mu may la occasion wu nga yëg li nga xamante ne moom la fuqaraa yi ak masaakin yi ak maazuliin yi mooy ñàkk ak ñi pauvre ak nga xam ne dañ leen isolé wala ñu ne ci loxo mënuñu cee jot xiif ak maral sa bopp daf lay may opportunité boobu nga mun ca am balaa ñuy dugg ci loolu ci yeneen point yi xoolal fi mu nekk nii am na benn méthode boo xam ne xew na temps yi koy wooye intermittent fasting intermittent fasting benn méthode la pour pour euh, régime lañ koy wooyee wala ñu ne de façon de vivre la sa lifestyle boo xam ne daf lay dimbale yow doomu aadama bi pour nga ama better life lan mooy effet wu intermittent fasting intermittent fasting bi ñu ko waxee mooy dafay affecté yow sa système sa bopp yow en tant que human being daf lay daf lay joxaat énergie dafay raxas sa système bi daf lay may nga rejuvenate new cells scientifically cellule mooy li nga xamante ne li gën a tuuti ci doomu aadama ndax doom aadama li ko formé ay organe la organes yi la leen formé ay tissu la tissu yi li leen formé ay cellule la kon donc cellules yi mooy building blocks maanaam brique yi nga xam ne moom lañ tabaxalee tabaxee jëmmi doomu aadama cellules yooyu da ciy am yoo xam ne dañuy dem ba mu yàgg ñu dee bu ñu dee dañ leen di war a dañ ciy war a débarrassé wu su doomu aadama xiifalee boppam nag jamono bu yàgg dafay am lu ñu wooyee mast cell wala cellule yoo xamante ne ni seen liggéey mooy ñuy wër yaram wi dafa lekk loolu ñuy wooyee cellule yu dee yooyu bokk na ci loolu ñuy attaquer même cancer barki démb maa ngi gisan gis benn article bu ñu bind ñu européens yi commencé nañ yenn maladie yi nga xam maladie yi nga xam ne am cancer seen traitement lan la starving dem bàyyi leen ñu xiif jamono bu yàgg bu ko defee jamono bu xiif boobu ñuy xiif dafay rey cellules yi nga xamante ne mooy cancerous cell yooyu kon donc science mi ngi ñëw di trouver loo xamante ni ci cent yu mujj yi lañ ko commencé mais bu ñuy wax sax dañ naan ci dix yu mujj yi la gën a développé soo demee YouTube jamono yi di nga fa fekk lu bëri ci ay articles yoo xamante ne ni mi ngi wax ci intermittent fasting te ñun Muhammad sallallahu alayhi wa sallam indil ñu ko fourteen hundred and fifty plus years ago mille quatre cents ans plus mille quatre cent quarante trois ans yu tege ca gannaaw la ñu ko indiloon jàngal ñu lan mooy intermittent fasting mooy woor xiifal sa yaram ba mu yàgg nga della wàcc moo tax moom sallallahu alayhi wa sallam mu ne ñu a bi nga xamante ne ni abghadul wi'a iman uhu wiaa bi nga xam ne maanaam ndab li nga xamante ni feesal ko moom la yàlla gën a jéppi mooy biiru doomu aadama duy ko ba mu fees mooy ndab li nga xamante ni moom la boroom bi gën a bañ ci ku koy ba mu fees kon donc intermittent fasting bon loolu benn la ci kon ci li nga tax ñun jullit yi di woor wala ci njëriñu njëriñu koor la bokk kon donc beneen point bi mooy kon nga mun a yëg li nga xamante ne nii sa moroomu jullit yi ngi ñi ngi koy yëg ndax ñàkk lu ñu lekk ba nga mën a yëg seen xiif boobu kon xiifal bi ngay xiifal sa bopp loolu la lay may waaye jullit yi bu ñu xiifalee seen bopp ndax ñun ñi ngi ñi ngi ñi ngi pratiquer loolu wala déet ndax dafa am ci ñun groupe boo xamante ni itam suñu wooree bëccëg bi yëpp sama mbokk yi sant yi sant si ñi sant ñi sant Mbàkke ñi sant Ba bu ñu wooree bëccëg gi dañuy nelaw bëccëg bi yëpp su guddi jotee ñu fanaanee xoole fanaanee lekk sama mbokk mu fi newoon ñu koy wax Ousseynou Ba moo daan wax naan man suma ma wooree damay lekk bu ñu dogee damay lekk ba fajar rek kon donc loolu bokkut ci li nga xam ne moo tax ñuy wax koor xiifal sa bopp googu bu guddi jotee tax taxul na nga jël sa defukaayu lekk googu di ko duy ba ba fajar ba jot nga xamante ne bii dootoo mën a wëlbatiku jaamu yàlla yi la war ci guddi gi doo ko def te kon xam loolu istiqbalu ramadan ki waxtan suba ñu wax ci li nga xamanteni mo ñu war ci biiru garab koor bi su koor gi dugusee te lolu su fekkente ne doomu aadama bi mu woré bu ndogu joté lamuy lek ci guddi gi ëpp limu doon lek ci bëccëg gi koku defeat na the purpose of fasting manam kon teggi yoonu li tax ñu ne wara dañuy wor wor te bu woré ba nopi su guddi joté su bëccëg bi da fay ba productivity am fay jeex kooku kon di fitne the purpose of koor mhm. koor daf lay jàngal daf lay tarbiyawaat préparé la pour nga nekk koo xamante ni amut loo mënta jànkonteeg maa ngi dégg ñu ne am na benn sénateur canadien boo xamante ne ni woor na trois ans yu tegaloo pour xool lan la jullit yi def ci koor mais mu ne moom bu wooree bëccëg gi la mu doon lekk ci bëccëg gi dépense ya ni da koy save bu ñu ko savee nag ba pare ñu wëlbati ko jox ko ñi nga xamne moy way ñak yi kon donc premier point bi ñu waxon moy nga mëna yek li nga xamante sa mbokki pauvre yek mais yek ko rek amul njëriñ yek ko ta def ci dara mo am solo kon su boba buñ julli di yekeri ben shiaru shiaru al ja'i'in ñi xif ñi suñu jogon top ñi nga xam ne dañoo xiif ñu dajale ñun li ñu warono dépenser ci bëccëg bi maanaam su wéru koor jotee bes bu du wéru koor di nga añ rère weeru koor jotee boo boo boo ndogoo ndogo bu woyof reer bu xadd jotee la ngay mos du bëri ndax du fa mën a nekk la ngay séef ci xaalis jullit yi dajale ko suñu ko dajale woon kon pauvreté mën naa wàññeeku ci ci àddina si kon point bu njëkk bi li ci am solo mooy nga yëg li sa moroomi jullit yi di yëg te boo ko yëgee nga jéem ca bo nga jëm ca dara beneen bi mooy xurriya wa taxarru nga libéré sa bopp sabop sa bopp and free sa ci njaamu say shahawaat maanaam say desire say cofeel say mbëggeel muy xiif lekk mar naan soxlaa soxlaa booloo nga booloog sa soxna wala sa borom kër doomu aadama ji bu fekkente ne loolu ngay def pa yemuloo taqali sorewuloo animaux yi imaamul Ghazali dafa wax mu ni insaan dafa nekk bayna bayna al xayawaan wal malaika nit ndax ngi nekk ci diggante nit mi diggante animaux yi ak malaayika yi animaux yi dañuy lekk di naan di booloo maanaam di sey doomu aadama di lekk di naan di sëy malaayika yi ñoom la ñuy def mooy sabbal yàlla ak yokku jëm ci yàlla takbiraat tahlilaat ak tasbihaat ñoom seen liggéey loolu rek la yokkute ku jëm ci kaw jëm ci borom bi la ñuy soxla ndax loolu la ñuy dundee animaux yi procreation ag eat ak drinking la ñuy liggéey doomu aadama nag ñëw yor ñaari jukko yëpp bëgg a jokk ci jukkooy malaayika yi bëgg yor jukkoy animaux su fekkente ne nag kon ñaar yooyu mu ne la ñaar yi ar ruuxu wal jasad muy ruuxu doomu aadama nga xamante ruux amrun samawi la jasadu doomu aadama nekk amrun ardi ñi ngi ñaar ñi ngi nekk ci siraa ñi ngi nekk ci benn xeex bu bu métti ku gañe rek the winner takes all su fekkente ne sa ruux moo gañe dalay yóbbu jox la jukkoy malaayika su fekkente ne sa jëmm ji moo la dalay jox jukkoy animaux li nga soxla mooy lekk naan moom la yàlla di wax ci alquran um kal ba bal hum del dañuy mel ni animaux wala ñoom sax ñoo gën a sànku ay animaux kon xurriya boobu su ko doomu aadama ji amee libéré boppam ci njaamu lekk ak naan ak booloo su boobaa doomu aadama boobu keneen mënalu ko dara moo tax ñu ni soo nootee sa bopp keneen mënu laa noot koo xamante ne ni am na taxakum dem na ba mën a contrôler boppam tënk boppam ci wëru koor kooku am mënta am ci àddina loo xamanteni ni mënu koo tere boppam wala amul lu ko mën a te mhm. soo xoolee yenn habitude yi nga xam ne am nañ ki la daqa naan café Serigne Ahmed maa ngi moom ñoo bëgg comme ñu bëgg café lañ mais du yàgg-yàgg ba weeru koor bëccëg gi nga naan café da nga bàyyi café gi di xaar ba dog jot kon diggante boobu ñu contrôler suñu bopp ci naan café gi bëggu di jot kooku amul leneen lu mu lu ko mën lu mu mënta contrôler tuxkat yi nga xamante ne nii buy lu ñu bëgg-bëgg cigarette bu julit lañ su weeru koor jotee duñ tux mukk ci bëccëg gi ñi nga xamante ne nii am na yenn jukko yi jukko yu ci bëri boo ko mënee boo mënee tënk sa bopp ci lekk ak naan nga xamante ne nii lu la xalaal la lu la dagan la kenn aayewu la ko kon li nga xam ne dañ koy aaye contrôler loolu waru laa mën a jafe kon al xurriya wa taxarrur liberté ak freedom bi nga xamne mom la doom adama wara a purifier bopam préparer ko ci bopam kon bokku na ci condition yoyu motax man may suma woré ma ngi jang nan lay contrôler suma bop suma woré xamna nu may contrôler sama sama desire Suma démé ba am contrôle bobu ci sama bop nak ma mën leneen lo xamanteni ni warna jog jëm ci sama kaw kor kon ñaari condition yooyu bokk na ci li nga xamanteni ni motax ñuy wor ولا فيلوزوفي بي نيك بيهايند فاستين بنين بي موي تحقيق الوحده وور دا فاي بوله دوم ادمي مانام جولي دي داني داجالو ترابط الاجتماعي كوماسي ام مانام ني كوماسي لنكلو ويرو كور نيپ نغي تي جاكاي دي نافله جي بوغو دي ويرو كور bo xolé ci yeneen dëkk yi surtout ci pays bu mel ni pays européen yi sax laay wax wala pays de l'ouest yi su weeru koor jotee jàkka dañ fay teg ndogu ñëpp di dem ca jàkka yee di ndogu ci ñëpp ca jàkka yee la ñuy ndogoo ji on a regular basis nit ñi duñuy ndogoo sax seen kër wala bu dee seen kër ngeen di ndogoo sa cousin yi dañuy ñëw bu dee kër gu mag la waa kër gi yëpp ñooy dogandoo dogandoo ñoom ñëpp ñooy bokk lekkandoo ñoom ñëpp ñooy jullit yi ñooy woorandoo ci benn bés jullit yi ñooy ndoo ci benn bés weex daa ngi noonu àndandoo parce que unity united you stand and divided you fois bu mm. ngeen àndee rek am doole su ngeen takkalikoo rek ñàkk doole julit yi ànd kon di worandoo ci benn bes julit yi ànd di dogandoo benn bés woreendoo benn bés julit yi àndandoo di xaddandoo benn bés arrêté julit yi àndandoo di dogandoo benn bés kon kor mooy indi li ñuy wane ñun benn la li ñunt bi wooye inna haadihi ummatukum ummatun wahida wa ana rabbukum faabuduni yàlla ko wax ci alquran seen umma bi xeetu muhammad bi benn xeet la man maay seen borom jaamu leen ma ñun ñi kon julli di ànd boobu ñu war a ànd weeru koor ñëw di ñu ko jàngal àndandoo leen ay ñu laaj suñu bopp question bi ndax ñun ànd googu am na actuellement boo xoolee réewi jullit yi bu ñuy wooree tey ñii duñu woor Sénégal gee ñu dëkk boo demee fi mu nekk nii ñaari koor umandoo dina ñaari um kumte dina fa am ñaari korite dina fa am des fois ba ñett koor kumte ba ñeenti kumte boo demee ci réewi naar yi la même chose Arabie Saoudite bu ñu gisul weer wi doesn't matter bu dee Qatar ko gis wala Kuwait ko gis wala Iraq ko gis du ñu woor ñoom la ñuy xaar seen bos bopp buñ ko gisul duñu wor mel ni kon jullit yi li ñu waroon a boole li nga xamante ne bokk na ci raison yi tax koor jóg muy boole ñu xañ nañ ko sunu bopp ba bu weeru koor jotee ñu gën a diviser wu kenn ku ci nekk di woor sa kooru bopp di woori sa kooru koorik bopp kon bu ñu bëggee dellu ci lislaam mooy ci buumu yàlla gi subhaanahu wa taala bi mu ñuy wax ne waatasimu bi xablillahi jamian wala tafarraqu mooy leen ci buumu yàlla gi subhaanahu wa taala bu leen dem tasaaroo mooy ah, googu defuñu ko ndax ñun kenn ku ci nopp yaa ngi sa bakkanu bopp bi yaa ngi topp sa jumtuwaay ne kër sëriñ diw laay topp wala dëkk diw laay topp wala imaam diw laay topp suñu deful lii du def lii loolu wute naag li ñu borom bi subhanahu wa taala dénk ci lislaam yonti bi jàngal ñu ko ci biir lislaam ci biir weeru koor la jullit yi di daje bokk yi ñuy def yëpp kon ñu jéem a jàng ci loolu su koor gi dalee koor gi nga xamante ne ni ñëw na lëmbewu ak ak euh, covid bi waaye bokk na ci lii ñuy def tey muy exemple weex dawu jullit yi mooy àndandoo toog ñun ñëpp bokk ci dëkk yu fasantikoo jokkoolu ci benn programme di ñuy waxtaan ñuy fàttali ñu suñu diine lii bokk na ci li nga xamante mooy indi wexda wexdatul umma boole umma bi ñu nekk benn amul fan nga bokk waaye li ñu dañoo rek mooy allahu ahad wa muhammadu nabiyuhu li moo ñu tax a jóg beneen point bi nga xamante ne ni daanaka ci laay war a terminer balaa ñuy balaa ñuy sori muy tanmiyatul euh, muraqaba doomu aadama kooram bu koy def li mu koy defee mooy xam na ni maa ngi am ku may muraqib ku may muraqaba ku may xool jëf yëpp mën nañ ko wanewu waale ba des koor koor kenn mënu ko wane waale koor mooy loo xamante ni nii soo duggoon ci dus bi tey di jàpp kenn nekku nga góox ndox di gàllaxndiku su ndox dam toq ndox jéemoon di jàll sax nga xaxtandiku di nga xaxtandiku ba toq ndox boobu génn doo bàyyi mu dem Mm. te pourtant bu demoon kenn du ko yëg pourtant boobu bu jëroon ñaari ñaari num ci loxoy ndox guux ko war na mu jàll kenn du ko yëg da doon jàpp génn waaye ragal gi ngay ragal borom bi subhanahu wa taala xam gi nga xamante ne allahu samiun wa allahu basirun wa huwa alim kuy gis la kuy dégg la te xam lépp li ngay def la moo tax ba doon nangu lenn ci ndox moomu di jàll ci sa biir gémmiñ مراقبه بي ناي داف سا ديغانتك بروم بي سبحانه وتعالى موتاخ يالا واخ القران كن لي تخ من وور موي ني كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون لي موي ريزون بي تخ نيو وور bu faratal nañ كم ci yeen wor wéru koor comme ni ñu ko إن won ci ñaleen jitu won walaakin yurbikum al-yusr yàlla soxlawul ci yéen jafeel leen mais yombala leen la bëgg mais li mu bëgg ci wooru koor mooy ngeen am taqwa taqwa mooy wiqaaya wiqaaya mooy nga jël benn barrière protection sa diggante ak mooy yàlla sa diggante ak mooy yàlla googu nag moo tax nga xam yëg li la koy mën a may rek mooy nga dem ba am yëg-yëgu muraqaba nga yëg-yëgu muraqaba muraqaba mooy nga xam ne yàlla lay xool foo man di nekk bi may jàngal Laxdari góor gi ñu doon jàngal muy jàngal mu ni ñu sëriñ bi dafa woo ñetti taalibeem wala ci taalibeem yëpp mu jox leen ku ne benn doom mango ne leen dem leen ngeen làqatu fu leen kenn gisewul ngeen lekk xale yi ñoom ñëpp ñu dem ku ne lekk sa mango geen xale ba sant ndaw <laughs> del si ñëw indi mangoom lekk ko bi mu ñëwee sëriñ bi nekko lu tee lekkoo mango bi mu ne ko fu ma dem yàlla nga gis dem naa nëbbatu ci ron lal gi fu ma dugg rek yàlla nga may gis moo tax mënuma ko woon a lekk man kenn boo tax lekkuma yàlla lekkuma mango bi ma dellu siwaat mu ne lii mooy muraqaba mooy am ixsaasu muraqaba istishaar nga dem ba yëg ne anna allaha yaraaka fi ayi zamaanin yàlla dalay gis foo man di nekk wa ayi ci benn jamono bu mën a nekk wa ayi makaanin wa ci foo mën a nekk ci palace wa ayi xaalin ci benn condition boo mën a nekk كم نكون يالا محمد صلى الله عليه وسلم وخير من اتق الله حيث ما كنت رجل يالا فوما نك فوما نك رجل رجل في يالا تخمن يالا برم سبحانه وتعالى مغفر تخانو نعقوبة موي لوا بيغا خمنتيني موم لا تك بور بينير كيب كو خمنتيني ني دافنا نكاسادو نونا لولو دو تك كين دو واتي كين تي لي نيوكاي ماي رك موي موي ني ني ديفلوبي كي سونو بير خانو مراقبه خمنا يالا مو نيو di ñu gis exemple dina ci ñëw moo tax ñu ne koor jaamu yàlla la boo xam ne ibada sirriya la jaamu yàlla bu secret la nga xamante ne nii sa digganteeg sa borom képp la def leneen lu dul koor dañ koy def ci mbooloo moo tax ñeele asalaat julli dañ koy def ci mbooloo moo yonent bi nañu julli ci mbooloo moo gën ñaar fukki yoon ak juróom ñi ne ñaar ak juróom-ñaar ci julli yow kenn ndax dajaloo ba lañ ci soxla moo zakat dañ koy wax ne la xuz min amwalihim sadaqatan tutahhirum jëlal ki ñoom seen alal ndax nga libérer leen nga firi leen nga nettu setal leen mais nag joxe bi la ñuy wax in tubdu sadaqatan fa ni'ma hiya wa in tukhfuha wa tu'tuha fuqara'i fa huwa khayrun lakum joxe leen alal ji wane leen ko loolu loolu lu baax la waaye bu ngeen ko nibbee joxe ko loolu moo gën yàlla wax ñu ci alquran mu ne ñu yunfiqu minu sirran wa jahra mooy joxe ci nëbb di joxe ci feeñ kon ci zakat ak sarxe lu ñuy def la ta luy feeñ la hajj bu ñuy dem màkka di hajj talbiya alani ya lay doon labbayka allahuma labbayk labbayka la sharika laka labbayk inna alhamda wa ni'mata laka wal mulk la sharika laka labbayk kenn du ko yalu dañ koy wax ci kaw ni ñëpp di ko dégg ni ñëpp di la gis nga sol sa yére yu weex ne fang ci digg bi muy jëf jooy def nit ñi di ko gis kon hajj jëf la joo xamante ni ju ñuy gis la julli julli gu mbooloo gu ñuy gis la azaka dañ koy joxe mu nekk loo xamante ne ne alali la waaye woor mooy li nga xamante ni soo xiifoo mar te sëyuloo nga yef ko jant bi fenk ba jant bi so te amuloo woon yéeney koor du woor daayet la du woor daayet la moo tax xam-xam yi ñu ne imaamul Ghazali wax ba tey ci koor mu ne koor dafa am koor sawmul am mooy koor gi nga xamante ni general fasting la ñëpp koy def lan mooy imtina anil akli wa shurbi wa shahawat nga bañ a lekk bañ a naan bañ a booloo ak sa soxna wala sa borom kër beneen bi mooy sawmul xaas spécial koor nga woor woorloo sa cër yi sa cër yëpp sa làmmiñ ak sa gémmiñ sa sa bakkan sa bët lépp ki ñuy waxtaanal suba ci jàmm ci nu ñuy teroo dina ñu ci yegsel kon loolu beneen façon koor la boo ëpp niveau koor bu njëkk ba benen koor gi nag mooy sawmul xaasil xaas ñooñu mooy sawmul anbiyaa yi wa saalihin ñu baax ñi ñooy wooree noonu mooy ñi nga xamante ni bu ñu wooree seen xel du dem ci leneen lu du yàlla subhanahu wa taala moo tax koor jukko jooju mu yor loolu muy def ci doomu aadama nga xam ne mooy cinquième raison bi tax ñuy woor muy li yàlla wax ci alquran yi hadisul qudsi mu ne kullu amal ibnu adam lahu illa sawm fa innahu lii wa ana ajzi bi doomu aadama jëf jumu mu def pour moom la damay jox malaayika yi ñu fay ko waaye koor pour man la man la ko defal man maa ko koy fayal sama bopp mu ne wa yadaa shahwatahu li ajli bàyyi na li nga xamante ni ay désiram la woon cofeelam bëggéen ak bànneexam mu xañ ko boppam te kenn taxul ko du man waaye jullit yi tey fi ñun ki suñu bopp ñu gën a soxla leçon boobu ñuy jàng ci biir weeru koor mooy leçon muraqaba muraqabatullah xam na yàlla mu ñuy gis yàlla mu ngi ñuy dégg suñu ko suñu mbubboo jukko jooju nga xamante ne mbubb jàng nañ ko ci biir weeru koor kon suñu suñu dama yi suñu suñu eh, xol yi wala suñu suñu suñu yëg-yëg dina jóg yewu ba bala ñoo def dara ñu bàyyi ci xel kon benn président surtout ci Afrique duñ jaay suñu réew yi pour suñu bénéfice bopp du duñu jaay sunu doom yi ndax sunu bénéfice bopp dara taxul bénéfice bopp mooy lan mooy bëgg resté ci kaw nguur ba mu jaral président africain lu ñuy ñemee def li président africain ñemee def benn président ñemewu koo def Europe Afrique ngay gis président africain mu mun a jël alal ju kenn xamul wala ministre wala quiconque ci biir pays africain mu mun a jël alal ju kenn xamul nu mu tawul yóbbu ko Swiss bank denc ko fa te dara du ko ci fekk américain wala européen bu def xaalis Swiss bank bu subaa sa réew ñëw dem Swiss bank jëlee ko fa am na fi américain yu fi rawale woon xaalis doon daw tax yóbbu ko Swiss bank dañ ko jëli ñu indi ñu fay leen fayloo leen tax rawaate na ñun suñu président yi président africain yi ak suñu ministre ak ñay liggéey ci biir Afrique ñoom ñooy wanteer seen réew pour seen bopp boobu te fàtte ne muraqabatullahi mu nga fa yàllaa ngi leen di xool xoolal ba léegi suñu jukko yi ñu yor docteur ngay dem Sénégal mu nangu laa wanteer yow mi malade jaay la garab yoo xam ne soxlawuloo ko rien que pour def ci poosam dundal waa këram te moom la muy fayeeku la muy dajale ci bés malaad bi mënu ko am ci weer wala mënu ko am ci at docteur ngay gis koo xam ne muy bindal malade ordonnance wala infirmier bindal malade ordonnance mu dem jëndi ko te soxlawu ko mu ñëw indiko ko ñu rocc ci pour jaay ko keneen kooku fàtte na nan la muraqabatullah fàtte na ne yàlla nga koy xool juge ngay dem ñëw neexal ko mu defal la nga dem ci sëriñ neexal ko wala fay ko mu liggéeyal la nga ñëw doom aadama fàtte na jikko bi ñuy jàng ci weeru koor te ne woor su weeru joor koor jotee ñëpp woor su weeru koor woor moo xam muy président mo xam muy ministre mo xam muy serigne tariyaax mo xam mo xam te ci biir wéru koor ña ngay def la lu ñu doon def ci biir wéru koor serigne tariyaax ya ngay liggéey di yàq ci biir wéru koor ña ngay liggéey doomu jaambur mu mel nangam ña ngay liggéey jëkkëru jaambur wala jabaru jaambur mu mel nangam wala yàlla moo xam ci li nga xamante ni ñun fàtte nañ ko ci muraqabatu mu te ñu war koo jàngee ci wéru koor boo wooree ndox jàll waaye soo paree la ngay dagee dara xalaalu ca te ñu ne la boo lekkeelu xaram xaraam di nga toog di jaamu yàlla ñiin fukki guddi loo ñaan boroom bi subhanahu wa taala du ko nangu ci naafeq ci loolu ngay gis kon nit ki mun a xam ne jamu yàlla bu ànd ak muraqaba kon koor loolu lay war a mën a jëli ba boroom xam-xam du jaay ad ad duniyaam diinam ndax diineem jaay ala diineem ndax duniyaam jaay alaxira ndax adduna miraas da nga koy dégg muy am Sénégal coow lu di jeex na ca kur kii warta doon lii kii war naa doon lii te fekk ne teguñu ko ci yoonu sharia boo xooloon sharia di nga ragal borom bi subhanahu wa taala yow may ilimaan jay atte wala yow mii ñëw di nga xam ne yàllaa ngi lay gis yàllaa ngi lay dégg nga am muraqaba boobu bu boobaa loolu du la ci mën a fekk kon doomu at ñun ñun doomu aadama yi war nañoo bàyyi xel ci li nga xamante ni mooy li mujj li mujj mooy li ñu suufi yi wax suufiyanke yi ñooy wax iza stawat sariratul abdi wa alaniyatuhu qala allahu aza wa jalla hada abdi xaqa su sekkrey doomu aadama bi wala ci jëfi doomu aadama ju nëbb ji ak jëfam ju feeñ ji buñ demee ba yem yàlla mu ne kii mooy sama jaam bu dëgg bi maanaam su doomu aadama su wéetee moom kenn la muy def ci biir néegam mooy yem ak la nga xam ne bu public bi taxawoon moom lay def mm-hmm. kooku kon am na muraqabatullahi kooku mooy jaam bi yàlla di wooyee abdi xaqa kii mooy sama jaam bu dëkk bi kon yàlla ñu yàlla def ibadullahi xaqa jaamu yàlla yi nga xam ne dañoo dëgg ci borom bi subhanahu wa taala yàlla may ñu ñu bokk ci ñi nga xamante ni jukko yi nga xam ne moo tax ñuy woor pour ñu jàngee ko ci weeru koor damay wax toujours ne weeru koor is an off season ci la ñuy préparer ndax saison bi footballeur yi bu saison bi jeexee dañuy dem ci salle yi def gymnastique di def sport di yëkkati poids di préparer pour bu saison bi ñëwee ñu mën a compétir jullit weeru koor mooy off season am ci lay demee préparer yi dem ja woor jàng jukko yi yëg li mu julitam di yëg xam li nga xamante ni moom la ko yàlla di tere andando ak mbokk julitam yëg yàlla muraqabatu lay su weeru koor jeexee am na onze mois yo xamne day pratiquer li nga xamne mom la jangol kon yàlla ñuko yàlla may yàlla def ñu ci julit yi nga xamne julit yu dëggu lañuy doon julit yo xamanteni ni dañuy naan sami'na wa ata'na غفرانك ربنا وإليك المصير ربنا إننا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين waaleykum salaam baarakallahu fik barakatuh baarakallahu imam ndaw waxtaan wi am na solo ndax li ñu ci teg rek mooy yàlla nañu yàlla may nopp dégg ak cëru jëfe ndax tabaarakallahu ku dégg waxtaan wi dana mën a dellusiwaat gën a takkaat janj yi gën a jooyanti eh, li nga xamante ne moo di taxawaay yi ci weeru koor gi ndax indil nga ñu li nga xamante ne moo di waajtaayu koor nit naka la wala waajalee koor ngir dugg ci bu ci duggee ba noppi wax nga ñu bénéfice yi nga xamante ne ni moom la ci am waaye taxawaay yi nga xamante ne moom la ci war a am ngir à la finalité mu am muraqabatullahi yëg ne sans borom mu ngeeg moom fu mu toll kon lépp lu muy def mu seet ko ci sans borom napp natt ci ki nga xamante ni mooy subhaanahu wa ba nga xamante ne ni dootul def leneen lu wuteeg lu ñu ko sant ci lislam waaye sëriñ bi ni ki nga waxtaanee ba daaneel noonu dañoo am li nga xamante ne moo di second part mooy deuxième partie bi ñu ciy dugal ñi nga xamante ne ñoo ne ci ligne bi ñoom ñoo am possibilité laaj seen question par rapport ak li nga xamante ne moo di thème bi di philosophie koor waaye aussi laaj yeneen question yoo xamante ne yu mal ci wàllu weeru koor la balaa ñu ciy àgg nag dañuy fàttali mbokk yi xarit yi ñuy seetaan fii ci ITFA di Islamic Tijaniya Foundation of America Radio ci YouTube chaîne YouTube bi ngeen mën ko am ci ITFA Institute bu len fàtte di bës bouton bi nga xamantene moy subscribe mom moy tax lepp lo xamantene ay programme la yu jógee ci Islamic tijania Foundation ngeen mën ko suivre donc ITFA Institute la ci YouTube bu ngeen ko type in rek di ngeen ñu mëna suivre mbokk yi nga xamantene ne yéen a ñuy doog dabe ñu ngi ci ñettelu fanu koor tabarakallah ànd ak ki nga xamantene modi di imam Abdoulaye Ndaw ci Detroit muy waxtaan li nga xamantene modi di philosophie koor ki leen koy indil di seen mbokk seen xarit Ibrahima Diop ci studio Daarul Habibi bu New York waaye balaa ñuy dem ci second part bi dañuy delluwaat rek fi nga xamante ni moo di North Carolina seet suñu mbokk Haaj Jabel Joom mu indil ñu li nga xamante ni moo di programme it ITFA yi by the time imam bu dee da ngay naan ndox nga naan ndox ñu mën a yeggali ci second part bi Haaj Jabel bismillah a ah, asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuhu waaleykum asalaam wa rahmatullahi taala wa barakatuhu ah Haji Diop ñu ngi lay ziar di jiite ziar bi ci di ci teg di ci jiital sunu kilifa muy Sidi Ahmed Sira ah, muy Sidi Ahmed si sunu sëriñ sunu wasila di ko ñaanal gudd fan di ko ñaanal wargu yaram ak mbokk taalibe yi mu ko àndal yëpp waaye di ziar waa xadara bi yëpp ah di ziar rek ah, imam ah, Ndaw di ko di ko ci waxtaan wu am solo présentation bi mu ñu amal ndax bu bu boo ñu tugal boo ñu tuddalee woor wax ñu aspect sanitaire yi ba pare wax ñu aspect euh, psychologique yi mu nekk li nga xam ne sax moo ëpp solo ndax defe naa ne psychologique bu baaxee rek sanitaire bi day ñëw a ah, présentation bi am na maanaa ah ñu leen di wax rek di leen naan seen euh, euh, rajo rajo ITFA ci programme mu koor bi daf ñuy indil benn programme bu am solo boo xamante ne nii wax dëgg yàlla képp koo xamante ni rek bëgg nga jàng ci koor gi bëgg nga yokku sa man man ndax weeru profito la defe naa ne programme bi nga xamante ni it fa indil nañu ko nekk na programme bu bu takku ci loolu ah boo xoolee ah, thursdays saturdays and sunday ah am nañ ah, ah, quran reading manam uh, njàngum alquran ak lecture de al lecture alquran muy am from one to two pm ah new york time Two 2 to three, ñu ñuy defaral tafsir quran ak hadith mu nek lo xamanteni ni nii defe ne dinañ ñu faram fàcceel li nga xamanteni moy sunu alquran waye tamit wax ñu ay hadith yi nga xamanteni ni wax yonente bu bi sallallahu alayhi wa sallam la sallallahu alayhi wa sallam xaaj jabel loolu am na solo am quran reading manam jangum alquran les les mardi les samedi et les dimanche ci zoom bi waye tabarakallah ha jabal ku bëgg a ci programme bobu kan ngay jokkool wala kan ngay wara wo pour mëna dugg ci programme yoyu waaw programme yi moom boo ci bëggee dugg mën nga jokkoo ak euh, kilifa yi nga xamante ne ni ku mel ni sëñ Cheikh Diall euh, phone number nekk 267 688 8980 mën nga jokkoo ak Soxna Ami Sarr euh, contact am mooy 401 261 2701 mën nga jokkoo Soxna Jeewo Ba nambam di nekk 206 931 1895 am nañ Serigne Cheikh Tidiane Seck kontagam uh, nekk 401 451 5498 Serigne Assane Thiandoum kontagam nekk 443 255 6477 ak Soxna Ndorine Gueye kontagam uh, nekk 201 993 0923 donc ñooñu ñoo nekk ñi nga xamante ne nii ñoo nekk ci bopp bi ci képp koo xamante ne nii am nga question wala nga bëgg a bokk ci programme bi wala nga bëgg cee participer mun nga leen a jot ñoom ñu wax la fi ngay jaar. jërëjëf Hadj Jabel ñu ngi lay ah. nuyu di la ziar ci koor gi. jërëjëf di nuyu it waa North Carolina xam naa balaa ñooy jeexal programme bi danañ dellu si waat ci yow. incha allah barakallahu ñu delluwaat rek fa nga xamante ne moo di Detroit. jëli mm-hmm. ki nga xamante ne moo di imaam Abdoulaye Ndaw mm-hmm. mu indil ñu tabaarakallahu li nga xamante ne moo di deuxième partie bi. Mmh. ñu mën a jokkoog ñi nekk ci régi bi ñoom ñu indil ñu seeni question mu mën cee tontu tabaarakallahu ñu gën a indi li nga xamante ne rek moo di nasiya kon tabaarakallahu képp koo xamante ne am nga question mën nga dugg ci chat line bi daal di wax ne foofu am nga fa question incha allahu taala ñu mën la jël sa question nga daal di ko jàllale imaam Abdullahi tabaarakallahu bu fekkente ne pare nga rek ñu mën a dem ci deuxième partie bi bismillah waaw balaa gars question du philosophie koor it's about Ramadan incha ndax dama dama suivre euh, ci télévision am ku ne boo bu football player comme ñi soccer player jouer football euh, nga entraînement wala match boo yëkkatee lu tolloog mille francs CFA wala la ndax loolu ci ngant yi nga xamanteni ni nit war na mën a miskin ci la bokk wala mhm. euh, loolu damay damay ree ba pare balaa ma koy doon ndax barki démb rek dama jot benn vidéo euh, Égypte la jógee dafa am benn community euh, <laughs> waa ji comité bi li ñuy def mooy ne soo fayee am nañ ay package mhm. package bi pour ñu pour ñu naafilaal la package bi pour ñu jullil la julli gu ànd ak wala julli goo xamante ne ni day ànd ak wala façon julli boo bëgg mën nañ la ko defal mais package la daal price yi wuute nañ bon boo joxee boo joxee mille gune ñu julli la julli gu ànd ak jooy soo joxee deux mille gune ñu joxe la julli gu ànd ak jooy ak xusuwoo boo joxee trois mil ñu julli la guddi soo defee nangam jaamu yàlla duñ ko jënd jaamu yàlla duñ ko jënd waaw koor yàlla daf ñuy wax ne dañ ko daf ko farataal ci ñun mm-hmm. kutiba alaykumu siyaam wax waaye nag wa in kuntum maridan aw ala safari mm-hmm. ñaari ngant yaa ngi noonu mm-hmm. nga nekk ko feebar wala ngay tukki fa iddatun min ayamin uxara nga woor après soo pare loolu nga woor waaye damay liggéey yi teelaa woor dara liggéey gënta métti xare te xare badar bi ko jullit yi di def ci weeru koor lañ ko def fukki fan ak juróom-ñaar te dañuy woor di xare te yonent bi tegiwu ko woon ci seen kaw kon kooku bu fekkente ne mën naa mooy li may wax ñooñu mooy lack of mooy lack of muraqaba boo demee ba yëgatoo na yàlla ngi lay gis yàlla ngi lay ngay wax lu la neex waaye nit koo xamante ne ni ngantam du dara lu dul damay liggéey liggéey boobu moo xam muy fubal wala moo xam muy nekk walda wala leneen la mm-hmm. nga ne ko léegi yow bul bul woor ba loolu passé allahu aalam loolu de bokk gut ci li ma jàng xeyna serigne ahmed bu fekkente ne xam nga ci loolu dara wala ma laaj abdoulaye mbacke male mu wax ma ci dara xeyna ñom mbacke mbacke yi dañu dagana waaye man de wax dëgg yàlla jàggaguma ko ci téere yi wallaahu nag aalam man de li ma ci jot a jaaxal sax mooy euh, prix bi jël fixé ko ndax defe naa ne du footballeur bépp moo am trois cent mille francs <laughs> ki nga xamante ni am na ngant ba mënta woor jigéen ji nga xamante ni dafa ëmb mënta woor su koor gi jeexee day nàmpal ba koor nar ko faa fekk kooku la ñuy waxee ne mooy itaamul miskin kooku dafay dafay leel miskin bi te loolu fixé bañ ko fixé dix dollars la par jour muy trois cent dollars ci weer bi malade bi nga xam ne dafa nekk diabétique malade bi nga xamante ni dafay jël ay garab cardiac cardiac medication wala mu am leneen loo xamante ni moo tënk ci feebar ba mënta woor kooku mu ngi bokk ci ña yàlla waxoon xamante ne nii dañoo feebar dañoo télé man kaana maridan kooku dafa feebar kooku lu koor ga wàcc na ko waaye li muy def i itaam dafay leel ñi nga xamante ne nii ay masaakin lañ tege tegeeku ci kawam waaye kuy fubali moom wala kuy liggéey rek tax bëgg a nekk sa ngant ah de wax dëgg yàlla jàngaguma ko. ah jërëjëf imam yaakaar na tontu bi leer na lii laa ci doon xaar ndax euh, ba ma ba ma suivre part boobu dama ne ah xëy diine ju bees la ñu dajji waaye tabaarakallah walhamdulillahi rabbil alamin ndax moom sax. yamul sax ci footballeur bi waaye dafa dem ba ne ku toog ba mu neex la nga sentir ne yow daal sa wér-gu-yaram sax may na la ko waaye mu bugguloo woor boo yëkkatee trois cent mille bés bu ne joxe ko kon tabaarakallaahu koor gi wàcc na la wane na kon bu boobaa milliardaire yi moom soxlaatu koor da leen di mujj wàcc ndax dëgg yàlla ñu ne ji nekkul ku ku ku am kàttan wala ku amul doole lañ ciy seet waaye li li ci am solo mooy ni nga ko waxee rek muraqabatullahi tabaarakallaahu nga yëg ne sa borom mu ngi ak yow foo toll kon du ñu téye ligne bi ni ñuy def mooy dañuy bàyyi ñi nekk ci nga xamante ne ñooy ligne bi ñu mën a dugg yaakaar naa soxna jeewoo moom dafa unmute ñàkkul mu am question bu mu bëgg a dugal soxna jeewoo bu dee da nga am question bismillah waaw mu mel ni jàpp sëñ Ibrahim la béyk ma dellusiwaat rek ci ci foofu xam nga am na aaya alquran bi mhm. ci ayatu sow mu yàlla di wax ci alquran aaya bi dafa aaya yi daci dañoo gudd te tegloo mhm. ba ci njëkk mooy yaa ayyuhal lazina aamanu kutiba alaykum siyaam moo dem ba ci laallakum tattaqoon beneen bi commencé ci ayaaman maadudaat fa man kaana minkum maridan aw ala safarin fa iddatun min ayaamin uxra mhm. ki nga xamee dafa feebar wala muy tukki dafay woor su koor gi jeexee وعلى الذين يطيقونه فدية طعام فدية طعام مسكين ñi nga xamante ne ni mën nañoo woor waaye duñu woor dañoo choose pour bañ a woor ñooñu fidiyatu taamu miskin la ñuy def ñooñu dañuy leer ñi nga xam ne dañoo néew doole fa man tatawaa fa wa xayrun lahu koo xamante ni nag dafa volontaire pour def ko looloo gën ci moom waaye nag mu tekki ne wa an tasuumu xayrun lakum ngeen woor moo gën ci yéen in kuntum taalamun su ngeen xamoon lan moo nekk ci njëriñu koor yàlla mu continuer ci beneen aaya bi ci topp mu ne chahru ramadan alladi unzila fi alquran hudan linnaasi walbayinat min alhuda tekki nag ne fa man shahida minkum chahra falyasum boroom xam-xam yi dañuy wax ne wa ala alladina yutiqunahu googu mu waxoon fële ci kaw ne ñi nga xam ne mën nañ ko fidyatu taam ñu ñi leel ñi nga xam ne dañoo tële mhm. ñooñu mën nañoo bañ a woor ñu fay ñu wooral leen aaye bi kooku dañ ko abrogate mhm. naasix la ak mansuux dañoo abrogate aaye boobu bi aaye bi ñëwee mhm. fa man shahida minkumu shahra képp ku gis weer wi na woor fal yasum amatul exception mhm. kon donc su kële jëlee aaya bële wékku ko foofu mais ki nga xamante ne nii am na kàttanu fay ñu wooral ko mu fay ñu wooral ko tegu ko ci ah, par rapport ak aaya bi nga xamante ni moo ñëw abroger aaya bële moo tax Seydina Ali ibnu Abi Talib di doon wax naan ku ma fekk ngay tafsir alquran te xamoo naasiq ak mansuux dañoo war a dagg bopp jërëjëf loolu leer na ndax tabarakallahu diine noonu la taxawee ay yëpp wàcc ndaw ñu ci benn bés ay yëpp wàcc ndaw ñu ci benn weer tabarakallahu yii dañuy ñëw daal di fol yi nga xamante ne ñoom ñoo jiite woon ndax tabarakallahu buñ ko seetee rek ci li nga xamante ne moo di sàngara noonu la ñëwee mhm. muy jiitu dafa ne bu leen julli di laal sàngara te dem julli ji waaye ñu dem ba ci biir mu ne bu ngeen bu leen ko sax laalati araam na ci yéen moo k yemu ci àndal ci aaya bi tabaarakallaahu bu dee am nañu ci ligne bi waa régie soxna jeewo a ah, kon mu mel ni moom dafa un minute rek tabaarakallaahu ñu daal di leen bàyyi ñoom ñu dugal seeni question balaa li nga xamante ne moo di waxtu bi di ñu dab asalaamaaleykum wa rahmatullah waaleykum salaam wa rahmatulah wa barakaatu. Cheikh Ibrahima ñu ngi leen di nuyu bu baax. ñu ngi leen di nuyu bu baax yow tamit. marhaba Ibrahima marhaba ñu ngi ziar ñu ngi ziar. ñu ngi seen mbokk Umar Diop Columbus Ohio. marhaba Seydi Umar ñu ngi ziar marhaba marhaba marhaba Seydi. ñu ngi leen di ziar ñu ngi leen di ziar bu baax di di bu baax euh, once again euh, jataay bile le. alhamdulilah xam-xam bi leer na. alhamdulilah waaye bëggoon rek ñu pour ñu pour nga jaara ñu ci digg bi. ndax li xaram mi ngi fi waaye ndax def li xaram ci bisu koor dina dog koor maanaam jëw dafa xaram fen dafa xaram lu lan nan nga ko square ak ak ak ak sa koor ndax ñaar ñooñu bu ci ne am na am na lu ci dog koor danaa bëgg na xam ne waxtaan ci sharia jërëjëf salaamaaleykum wa rahmatullah alaykum assalam wa rahmatullahi taala wa barakaatu jërëjëf jërëjëf Seydi Seydi Omar yont bi sallallahu alayhi wa sallam daf ñu jàngal ci xadis mu ne ki nga xamante ne ni bàyyiwul xawla zoo maanaam jëw ak wax ji nga xamante ne ni dëgguwut yàlla soxlawul kooram bàyyi lekk ak naan rek yont bi sallallahu alayhi wa sallam nee na du woor moo tax ñu ne la koor da ngay woor bu fekkente ne da ngaa woor xiif ak mar te boole wuloo ci wooral sa cër yi ndax dañ ne la boo wooree sa làmmiñ wi dafa war a woor soo wooree sa gët yi dafa war a woor soo wooree sa biir bi dafa war a woor kon nga woor ba noppi te yow terewul yi nga xam ne yëpp dañ koy aaye borom bi subhanahu wa taala daf koy aaye terewul yow yaa ngi koy def kon kooku sa koor googu yàlla soxlawu ko ndax bàyyi wuloo li nga xamante ne ni moo tax ñu yonent bi sallallahu alayhi wa sallama ay ay ñu koor moo tax mu wax ci benn xadis solo mu ne isa sumta fal samuka wa basaruka wa lisanuka 'anil al kazibi wal ma'thami wa da' adha al qadimi wal yakun alayka waqarun wa sakinatun yawma siyamik wa la taj'al yawma siyamik ka yawma fatrik wa yawma fatrik siya siwa mu ñu hadith bi mu bo woré na sa gemmiñ gi wor na sa nopp yi wor na sa bët yi woor ci ay fen ak wax naka sa du noona mm. na nga bàyyi loraate ci boppam mu ne boo ko def bul ko def bul yemale sa bésu koor ak sa bésu ñakk koor ñu tolloo ci ñu yem maanaam boo wooree mu bañ a yem ak bés bi nga xam ne wóoruloo ko kon ku woor ba noppi boole koog di def yooyu loolu day yàq koor jëf yooyu dafay yàq kooru yàq kooru doomu aadama boo ko tegee ci xadisu yonent boobu sallallahu alayhi wa sallam bim ñu wax wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa waxyun yuuxa jërëjëf daa xam jërëjëf imam jërëjëf jërëjëf jërëjëf ca Cheikh Ibrahim jërë ngeen jëf jërëjëf xaaj Umar jërëjëf tabarakallahu ñu dellu ci next ñu dem ci next questions bu amee ku raise hand am rek ci biir régie bi ñu mën koo jël السلام عليكم ورحمة الله وعليكم السلام ورحمة الله واش باب واش إبراهيم نيون دي نيو نم غنا تد دي لين زيارتي وير وسلوي نون لاي فاي تبارك الله دي سي ديتال سانغ سيد احمد سي دي كي naka noonu tamit dañuy ziare al imam suñu sat boobu imam Abdoulaye Ndaw fa tabarakallah du dégg toujours rek saa yu ta dajeeg moom ndax euh, waxtaan ak moom yokkute rek la fa tabarakallah barakallahu fikum sëñ Pape jërëjëf jërëjëf Baye ñëpp daal alhamdulilah ñoo ngi nuyu tamit suñu jarbaat boobu ci North Carolina mul cabel jabel ñoo lay nuyu di la ziar di seen mbokk yi foofu lay ziar bu baax bu baax jërëjëf alhamdulilah euh, imam man de ci li ma bëggoon a ñëw tuuti mooy dama xamul sax ndax contribution la wala ndax am na ko ko wax sànq euh, dama gis suñuy mbokk yoo xam ne day ñëw ci jumaa ji fii nii ñoom koor gi dafa mel ni dafa xaw a metti ci ñoom ba dañ koy dañ koy bàyyi ndax ñoom ay construction workers lañ ñenn ñi dañoo ñenn ñi ci tali la ñuy liggéey ak tàngaay bi dañuy nekk ci ci mbedd bi ak machine wu rëy yooyu ñuy yore machine yi nga xam ne day vibrer pour nga gas tali bi donc ñoom mënuñoo woor bon léegi bi loolu amee ñu waxtaan ñu leen mais yéen leen ngeen war a def da ngeen waroon no fexe ba seen liggéey dëppoo ak seen diine mm-hmm. mais du bëgg a jël seen diine ni moom na fekk si liggéey bi mm-hmm. waaw maanaam yéen daal fexe ngeen ba bu koor gi ñëwee ngeen ni seen liggéey tax na mu ngi nekk bu dund seen islam boobu mat sëkk. kon war ngeen mm-hmm. seetaan seen liggéey ndax euh, ñoom loolu li ñuy def diina may nga leen ko ñu bañ a woor ndax seen liggéey dafa metti wala ñooñu bokk ndax dañoo waroon a jël vacation ci jamonoy jamonoy jamonoy koor ndax tey jii liggéey boobu ñu xëy dem di ko liggéey yàlla moo leen may liggéey. am na koo xam ne mm-hmm. feebar boo xam ne boo ko amul. loolu la mhm. def liggéey boobu muy benn. Mhm. xam naa ñaari bi dafa am sànq bu ma woo mu ni ma man dama yeewu euh, gis ni war naa mën a woor woor tey mais bi ma ko seetloo ci sama bopp sama jarbaat bu jigéen. Mhm. ci ay vers midi yooyu laa gis ni daal man set naa mun léegi nag ndax dama war woor li des ci bis bi julli li des ci bis bi su koor gi jeexee ma fayaat wala damay woor rek su woor gi woor su weer wi jeexee du ma fay man ko nag euh, yàlla def na sëñ Ahmad am na programme bu mu tëral ay boromi xam-xam dañ dañ fa ñëw dafa waxtaan laaj boobu kon dinaa ko fa yóbbu incha allahu taala kon imam daal ñoo ngi delluwaat di fedd li suñu kóolóore ak yow di bég ci yow fu ñu mën a toll nga gis ñoo ak ñu nga bañ ñu gis fa tabarakallahu kon mbokk yi ñoo ngi delloo di sant yàlla bu baax asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu waaleykum salaam wa rahmatullahi wa barakaatu jërëjëf sëñ Pape jërëjëf jërëjëf laaj loon wala wala tontu na laaj bi ba pare waaw non xam nga dafa contribution wala laaj ndax waaw contribution waaw waa mhm. yi ñoom ndax dañu mhm. war a dañu war jël off wala mm-hmm. ngir mën a seen diine ak seen liggéey wala ndax bu fekkente ne liggéey bi dafa dafa tar ba mënuñu ko àttan war nañ cee mën a euh, li ñu def rek leel miskin te bañ a woor loolu mooy question bu mm-hmm. beneen question bi mm-hmm. mooy ndaw su jigéen si nga xamante ne dafa toog ba midi doog a yëg ne mi ngi doog a set ndax kooku dafa war a continuer ko dafa war a enchaîner woor ca waxtu woowu wala dafay xaar bu bu paree mu fay bés bi wala dafay xaar ba bés bi ci topp rek mu doog um pour ñu mën a avancer allah. Hmm. waaw gis nga question boobu euh, comme li jëm ci ñi nga xam ne dañuy liggéey ci ci mazraa yooyu am na ci comme ci liggéey amal chaqa yi liggéey nga xam ne dafa difficile dafa diis ci ñoom parce que léeg-léeg di nga gis sax bo xoolee ci fatawa comme égyptiens yi ñuy laaj nga xam ne dañuy bay nekk ci tool yi diggante boo xamante ne dafa tàng lool jamono yi bu ñu bayee bu ñu demee ci tool yi di bay dana métti ñoom ba duñ mën a woor yenn borom xam-xam jox leen ruxsa pour ñu bañ a woor waaye li ci ëpp ci borom xam-xam yi li ñuy wax ne loolu du ruxsa ndax liggéey la te lii digale la bu yàlla borom bi subhanahu wa taala digle ñu war koo def dañ koo war a def te war a woor waaye ñi koy joxe ruxsa bale lañ leen jox ruxsa bañ leen jox mooy ñi ay baykat lañ ci mbay la ñu nekk wala ñi ay construction worker worker lañ ci liggéey bi la ñu am moom rek la ñu mën a liggéey ndax duñu ko du duñu du euh, dañ leen di bàyyi ñu bañ a woor ndax mu lii mooy seen mooy seen réponse man li ma ciy wax rek mooy ni nit ki ku bàyyi dara ngir yàlla boo defee dara ngir yàlla yàlla defal la wala boo bàyyee dara ngir yàlla yàlla defal la damay joxe exemple toujours ci sunu benn mbokk boo xam ne dafay dawal truck jamono daf maa woo mu ne ma imaam damay dawal de fi mu nekk nii ma ñëw ci benn load buñ ma war a jox load bi ba ma ñëwee ba war ko lonk sàngara la def te fi ma jógee sori na ñu war maa jox lot bi nu may def ma ne ko bu ko jël mu wëlbati ko ne gars yi du jël jël lot bi ñooñu ñooñu lu leen ko waxul amul naan ko duñ la fi joxati lot ak nangam nangam leen baax na daal di ko ko boppam ba muy génn nag booba ñu woo ko jox ko beneen lot boo xamante ni moo gën lot bi nga xamante ni moom la waroon a jël foofu. Mhm. kon man kaana lillahi kaana laahu lahu. Mhm. bu la yàlla jaralee rek yàlla dana la fekk si wallahu nag aalam am na ñuy jox ruxsa nga xamante ni amuñu benen pexete ci seen kinen seen survival nek nañu nañu def lolu waye li Pape wax muy ni diine du la fekk yaay fekk diine waye boko lonke ci inna ma usri yusra wala inna la la yuridu bikum al usra walakin yuridu bikum al yusra yàlla bëggul jafelal len daf leena beug yombalal kon da nga leen di jox ruxsa foofu waye man li ma leen di dénku moy ko man demul wuti liggéey bo xamanteni dana méngoog sa diine booy liggéey foo xam ne dañ lay aaye nga julli foofu du liggéeyukaayu julli dama seeti foo xamante nii da nga mën a julli kanta jigéen bi nga xamante ne nii dafa toog ba ci digg bi mu soog a yëg ne seetu innamal amalu binniyaat wa innama li kulli imri'in ma wa mm-hmm. julli koor soo xëyoon suma ba jant bi so nga di ko def fukki fan ak juróom te amuloon yéene ca commencement ba du woor du koor kon ndaw si su fekkente ne dafa xëy gis ne moom set na mu yéenee woor bu demee ba digg bëccëg mu gis ne setut su boobaa dafay dog rek continuer ñàkk woor su continuer ba journée bi jeex cetam googu continuer kooko cet dafay continuer di julli di def la mu war a def su fekkente ne fan yi nga xamante ne nii ci la mbërëgam tolloon fan yi mat na guddi jot na ba bi muy julli fajar bu mu tëddee ci guddi gi ba yow gis ne set na gisul dara ci boppam dafay sangu julli fajar fas yéenee woor su bëccëg gi jotee leneen dab ko te matagul fukki fan ak juróom day xam ne mbërëg la ba léegi mu continue su fekkente ne ci fukki fan yoog juróom yi na mu ngi ci seizième jour maanaam sixteenth day lu mel noonu dab ko su boobaa loolu dootul mbërëg feebar lañ koy tuddee su feebar boobu lu muy mun di def rek mooy day nettoyé wu dem julli ji kooku bleed natural bleeding lay doon nekkatul na fas wala nekkatul deret yi mbërëg mhm. loolu su boobaa kon ko kooko dafay continuer kooram mais bu dee ki nga xamante ne ni comme ni ma ko waxee woon répété waat ko dafa xëy yéene ba ci digg bëccëg gi mu gis mu gis mbërëgam day dog kooram waaye su xëyee yéenewul toog di xaar ba bëccëg gi jot mu gis ne moom set na su ko continuer daayat la rek ñàkk bopp ñàkk woor la rek waaye wóoru mhm. waaye ne naa ko continuer su moom naa continuer woor bu bu weer wi dee ma fayaat koy parce que koor gu amul yéene du koor mhm. waaw boo doon jóg taxaw di allahu akbar asalaamaaleykum te yéen a woo julli tisbaar soo paree juli woo tisbaar hmm. kon jëf-jëf dafay ànd ak yéene yéene mooy li nga xamante ne mooy ci jëkk su ci yéene amul jul jëf jooja nekkatul lañ ci jublu woon wallahu aalam jërëjëf imam tabarakallahu am nañu sëriñ Cheikh Ahmed Tidiane Seck moom mu daal di dugal question bu ko defee buñ ci jógee dem ci sëñ Mouhamadou euh, sëñ Cheikh bismillah Euh, asalaamaaleykum wa rahmatullah. sëñ waaleykum euh, di nuyu euh, imaam Abdoulaye Ndaw di ko rafetlu waxtaan bi di ko gërëm di ko sant macha allah di nuyu di jaare sunu sëriñ sunu wasila sëñ Sidi Ahmed si Habib. di indi benn ñaari laaj rek yu fi yu mu yónnee benn bi mi ngi jëm ci. ñaar ñaar ñëpp benn si benn affaire zakat la jëm mu ni dafay laajte pour pour kuy génne azaka ñu ni fekkee ni danga nga am euh, mbirum xaalis nga li nga xam ne dafa nekk at ba at da nga war a génne azaka muy laajte at bi euh, ndax dafay doon koor ba koor wala tabaski wa tabaski bi nga xamee ni yow yëg nga ni xaalis bi wala boog fi toog na fi ben at manam dal fa bëgg xam nuñ ko tënkee ci at bi daal ba nga xam ne moment bi nga xam ne ci la war a génnee ci la war a génnee asaka ñaareel bi aussi mooy am na mu ni am na mbokk mi nga xam ne mi ngi nekk fii wante mi ngi am ay account Sénégal bu ko defee dafa mel dafa am benn account bi nga xam ni comme mu nekk BHS mu am benn account bi nga xam ni saving la am benn account bi nga xam ni dafay mel ni compte courant la maanaam boobu bu yónnee euh, euh, euh, mbokkam yi nekk foofu ci compte courant bu lay génnee xaalis bi daal léegi nag bu waree génne asaka ndax day boole ñaari acompte yi la fa nekk mu génne ko wala dafay jëm ci bi nga xam ne rek mooy saving bi mu génne fa asaka loolu daal mooy mooy ñaari laaj yi quoi asalaamaaleykum wa rahmatullah waaleykum salaam mm-hmm. laaj bu njëkk bi doo ko baamtu laaj bu njëkk bi nu muy génne asaka. waaw waaw laaj bu njëkk bi. baax na baax na jàpp jàpp naa ko léegi comme alal ban période lañ koy génne. bala alal du koor taam taamu nañ ci li ñuy tax ñu taamu ci koor mooy ne jëfi koor dañ koy multiplier jëf ju ñu def ci biir weeru koor dañ koy multiplier moo ëpp tiyaaba waaye bu fekkente ne tamxarit am na ñoo xam ne Sénégal tamxarit la ñuy génne seen asaka am na ñoo xamante ne tabaski li ñuy génne seen asaka donc asaka ji yaa koy génne ci alal ji nga xamante ne nii denc nga ko fa moo xam ci weeru gàmm la wala muy ci weeru tamxarit wala korite wala weer wu mu mën a doon ba weer wa fekkaat ko fa kon xawlu bi mat na ca su matee xawlu rek dañ ko ci génne maanaam su matee at dañuy génne asaka ca loola la ñuy génne asaka yi dafay mat nisaab su matee nisaab ci la ñuy génne nisaab ci la ñuy génne asaka nisaab mooy nga jël valeur quatre vingt et un gramme mhm. nga multiplier ko par prix gramme or ñaata la tout récemment bi ma ko calculer quatre vingt et un gramme or gramme a ngi ne woon ci quarante et un xaw ma quarante deux dollars moom ngay multiplier par quatre vingt et un yooyu mu joxoon ko defee trois mille nangam sangam dollars lay doon su dee li nga denc mat na trois mille disons que ne di nga multiplier gramme or ak prix bi mhm. nekk na euh, trois mille cinq cent dollars soo yoree alal joo xamante ne nii trois mille quatre cent quatre vingt dix neuf dollars la biñ ci génne asaka su dee trois mille cinq cent dollars yooyu mat na ko da nga ci génne asaka two point five pour cent nga génne ko jox ko ñi nga xam ne ñoo ko yelloo xa alal nga xamante ne dafa nekk ci savings ak ji nga xamante ne ni dafa nekk ci compte courant compte courant ba ba nga koy génne la nga fa dencoon daaw ba ren la fa nekk la mat xawlu rek moom la ñuy génne mais su fekkente ne da nga faa dencoon deux millions di ko joxe ba nga bi nga ñëwee di ko xool la fa des un million la un million bi ngay booleeg la nekk ci saving ba génne ko génne ci asaka mais li nga xamante ne ni yow parce que boo boolee lépp yow yaay boroom te bi nga boo li nga xam ne yaay boroom mat na mat na nisaab te am na xawlu da nga ciy génne asaka maanaam mat na quantité bi nga xamante ne montant bi ñuy war a génnee asaka mat na ko te toog na fa durée bi nga xamante ne bi durée bu ñu war a génnee asaka la da leen di boole génne asaka ñoom ñaar ñëpp ndax alal ji moo leen moom du leen séparé wallahu aalam jërëjëf jërëjëf imam xanaa ñu toftal la si benn question rek maanaam sunu sunu soxna yi comme que yàlla dogal na ni ñoom dañoo sopp or trop macha allahu donc ñoom yi or yi ñu yore yi dafa mel na war nañ ci génne asaka de waaw kooku li ci atte bi ci gën a wóor bi ma ci xaman te doyloo ko moy ne duñ ci génne asaka lu dul seen borom borom da koo jël pour dencee ko alal or boo ko yoree euh, valeur la mm-hmm. nga yor ay basin valeur la nga mm-hmm. yor ay dàll valeur la nga yor ay montre valeur la ay dàll kenn du ko génneel asaka ay montre kenn du leen génneel asaka ay lenn kenn du ko génneel asaka yow yaa ko moom mais bu dee jigéen ji dem jënd or bii nag pour denc ko pour xaalis pour ëllëg mu jaayaat ko ndax nangam pour épargner ko la mhm. kooka loolu nekkatul takkaay loolu alal ju ñu denc la bu matee bu matee nisaab dañ ciy génne asaka joxe ko mais su dee takkaay la ko jënd pour takaayu boppam la mhm. kooku alalam la ay yëreem yi muy sol ay jasneeram ak i ak i koketam loolu yëpp moo leen moom alalam la joo xam ne da ko jënd pour sol ko li ñuy jëfandikoo duñ ci génne asaka wallahu aalam Eh, jërëjëf sëñ Cheikh xanaa tabaarakallaahu ñu jox eh, kàddu gi sëñ Mouhamadou bu ko defee moom it mu indi question moom tontu bismillah asalaamaaleykum eh, wa maa ngi leen nuyu di ziar la di woowee North North Carolina di nuyu di ziar rek suñu sëriñ sëñ si Ahmed di ko ñaanal jam, di ko ñaanal njaboot gi di ko ñaan yàlla yàlla bàyyi ko fekk ñun ba ci kanam kanam kanam yàlla barkeeloo te dëgëral liggéey bi Euh, Imaam Ndaw ñu ngi vraiment ñu ngi rafetlu waxtaan bi waxtaan bi rafet na vraiment saa yu ñu la dégloo rek xol yi xol yi sedd ndax wax ji dina rafet dina jub dina am dina am teggin yal na yàlla euh, dolli sa wér yal na yàlla barkeel barkeel dëgëral sa taxawaay rek fii ci bés kanam ñaari question rek xam naa benn bi dafay dafay rebondir un peu fii si fii fii sëñ Cheikh jógee mhm. woon yi ñu am fii ci liggéey yi est-ce que asaka daf ñu ci war ba ba tey day nekk sama xel ma bëgg di ko laajte mais wana lool boo ci amee lool ci mën a dolli nga nga nga dolle ñu comme ça ñu ñu mën a xam fuñ ci war a mën a taxee foofu question bi ma gënoon tax a jóg nag moo doon imam boo ko mënee nga dugal ñu si kafaara e, si yan condition si biir koor mooy um indi kafaara si sa koor te bu fekkee dal na la est ce que mën nga da nga war a woor ñaari weer yi obligatoirement yow sa bopp wala mën nga génn leel génn mudd lu tey li nga war a kafaar génn ko pour remplacer sa kafaar bopp waaw mm. jërëjëf imam vraiment content nañ ci waxtaan bi jërëjëf sëñ ibrahima ak sëñ jabel ñu ngi lay di ziar bi salaamaaleykum waaleykum salaam wa rahmatullahi wa barakatuhu jërëjëf 401k uh, liñ bu sa alal la parce que waxtaanoon nañ ci daaw bi ñu mujjee ci convention bi bi ñu mujjee ci convention bi waxtaan nañ ci lu sori euh, alal joo xamante ne ni yaa ko moom moo xam parce que ñaari fonds façon moo am nga am matching funds wala non matching funds bum ci mën a doon su matee xawlu dañ su matee xawlu mat nisaab dañ koy génnee ñaari ka moo yooyu dañ ko utiliser ci charia ak ak ak ci ci ci euh, zakat xawlu buñ ko waxee mooy mat at nisaab mooy bu tolloo ci quantité bi nga xam ne war nañ ko génnee moom lañ joxe woon exemple bi ci or quatre-vingt-un grammes su fekkente ne ni yow sa compagnie bu dee matching fan la soo joxee one dollar sa compagnie match la one dollar wala every dollar fifty cents su boobaa la compagnie bi joxe buñ ko boolee lépp yow yaa ko moom su fa matee un an da nga ciy génne asaka ndax war na la yaa ko moom mhm. parce que alal yoo xamante ne denc ko ba mu nekk fa am fa un an da nga koy def fara boo koy def mooy wax yonent bi wax nañu ko sallallahu alayhi wa sallam ci li nga xamante ne moom lañ koy defal mooy fa itaamu sittina miskinan fa siyaamu shahrayni mutataaliyaini aw nga ne eh, itaamu sittina miskina bokk na ci nag li nga xamante ne nii du loo xamante boo ko defee li ngay kafaara maanaam nga tey ko ñàkk a woor ko tayee ñàkk woon ndax ci sa hadis am na hadis boo xam ne ci yonent bi sallallahu alayhi wa am na ko xam ne dafa dog ci koor gi tey ko mu ñëw ci yonent bi yonent bi ne ko da ngay woor ñaari weer donc loolu mooy kafaara wu def ko te tey ko mu woor ñaari weer koor ga jeex mu del si mu ne ko wooraatal ñaari weer koor ga jeex mu del si mu ne ko wooraatal ñaari weer ba muy mat waaja dee mu ne ko dee na yóbbaale boru koor mais li nga xamante ne ni doomu aadama ji teyu ko nag def ko ba war caa ko kafaara war ko caa fekk su boobaa loola mooy kafaara su boobaa lay kafaara la nga xam ne defu ko tayu ko mu def ko su boobaa yàlla rek xam mu mun mu a mu mun a mu mun a mu mun a def koor ko moo tax ñu ne la kafaara dafa am ñetti façon itq mooy nga libéré jaam siyaam wala nga woor wala nga itaamu miskin nga nga leel ay miskin nga leel ay miskin bu dee woor la ñaari weer la yoo xamante ne tegaloo la te du am dara luy wax ci seen diggante bu dee libéré la jaam boo xamante ne nii daf di koo takk nga nga libéré jaam boobu wala nga wala nga nga woor euh, ñaari weer muy juróom-benn juróom-benn fukki fan sittina sittina euh, wala nga leel sittina miskinan juróom-benn fukki euh, way néew ju doole wala nga woor ñaari weer yu yu tegloo. Mm-hmm. waaw jërëjëf. waaw jërëjëf sëñ Mouhamadou Cissé kon tabaarakallaahu ñu jox kàddu gi rek sëñ Papa Kebe ñu ca daal di jox soxna Xadi Ñaan sëñ Papa bisimilah. salaamaaleykum wa rahmatullaahi wa barakaatu. waaleykum salaam wa ah, maa ngi ñuy ñëpp di ziar ñëpp ñu ma fi fekk. di dellu di nuyu euh, suñu wasila sëñ Sidi Ahmed ak euh, suñu yaay soxna ma jigéen di nuyu imam bu baax a baax di ko lu waxtaan bu rafet bi. ah laajte bu ma xam rek mooy maam ki nga xamante ne ah, xëy na dafa tawat mënu la woor mm-hmm. la mooy la moo doon ah, maanaam moom xam na ne mënu woor mm-hmm. lan mooy doon ah, maanaam comportement am nag comportement am ne doone mënuma woor dama feebar rek Euh, lu ma neex ma def maanaam lan la moo la wan jan jikko la war a roy ndéem te wóoru mhm, mhm. loolu rek laa mhm. am nga xam xam nga alhamdulilah xam nga koor gi nee nañ weer wi ci boppam moo tedd dugg nañ ci weeru ramadan tënk nañ sayaatiin yi ubbi nañ buntu aljanna yi tëj nañ buntu sawara yi jëf yi dañ koy multiplier ci la ñuy istigfaar ki la ñuy def nangam yonent bi mu ngi sallallahu alayhi wa sallam ki nga xamante ne nii mooy ruxuma am fi man daxala alayhi ramadan walam yugfar lahu ki torox dëgg mooy ki weeru koor ñëw ba jàll te jégaluñ ko ci yow bu fekkente ne da ngaa tële ba mënuloo woor nga def li nga xamante ne moom lañ war mooy itaamu miskin yow bu ko waa nga comme mënoo woor ndax da nga am jàngoro ju la teree woor nga génnee li nga xamante ne mooy muddu nga di ko jox miskin bis bu jot buñ ko calculer fii ci Amérique trois cent dollars la ci weer bi nga jox ko nit mais du tere kon jaamu yàlla yeneen yi nga xamante ni ñi ngi koy def ci biir weeru koor wi nga de ko def nawaafil yi ñuy def ci weeru koor naafila koor du farata su euh, du sunna boo xam ne yonent bi sallallahu alayhi wa sallam def na ko jamaayan jullee ndoog mbooloo mi Umar defu ko Abu Bakr Abu Bakr defu ko Umar moo ko dajale ñi ñuy jullee kon bu fekkente ne wóoruloo ñuy naafila ci sa kër wala ñuy naa nga bëgg dem ci daf naafila ci jàkka ja boo demee la di nga am ci yoolu naafila ba su fekkente ne da ngaa woor jàng alquran dañ koy def ci biir weeru koor di ko taamu nañ ko ci ndax yonent bi sallallahu alayhi wa sallam daan na toog jibril moog jibril ñuy nafar alquran ci biir weeru koor wi ane bi mujj nafar naag jibril ñaari yoon alquran ji ba mu jeex nga ne munu maa woor ma toog jàng alquran munu maa woor ma toog dem diglu ay tafsir munumaa woor lépp li nga xam ne jullit yi ñi ngi koy def xiif ak xiif ak maral bi rek laa def ndax mënuma loolu yow julit nga war na la nga topp li nga xamante ni mooy sunna yont bi sallallahu alayhi wa sallam mbooleem li nga ci mën nga di ko ci def li ñu yàlla digaloon nag mooy kutiba alaykum siyaam kama kutiba ala allazina min qablikum digal nañ leen ngeen woor weeru koor ti ñi nga xamante ne ni mën nañ ko ay yaaman mahdudaat fan yu néew la yu ñu wàññi fa man kaana minkum maridan ki nga xam ne dafa feebar wala muy tukki dafay remplacer jour yooyu ki nga xamante ne ni nag dafa feebar ta mu wóor ko ne feebaram bi du tàqalikoog moom dafay leeli miskin waaye jaamu yàlla yi nga xamante ne ni yeneen jaam yaa ngi koy def soo ko defee yàlla bindal la yool bi ndax yàlla moo teral weer wi teral gim ko teral mooy alquran jim ci wàtte chahru ramadan alladi unzila fi alquran moo tax ma commencé waxtaan bi ne weeru koor moo gën ci weer yi te ci kaw samsun baynal kawaaki bi dafa mel ni weer jant bi taxaw jant bi boo ko xoolee ci asamaan si moom ak yeneen étoiles yi fa nekk nam leen gën a leeree kon tedda ngaa ngay weeru koor boobu bu ma feebaree ba bam terema mën a woor du ma xañ sama bopp yool bi ci bokk bi nga xam ne moo nekk ci biir weeru koor du ma ne wóoruma rek damay def lu ma neex def lu la neex dalaa warul budul weeru koor rawaate ne bu weeru koor duggee wallahu aalam jërëjëf imam tabarakallahu ñu jox kàddu gi rek soxna Khady Niang moom it mu indi question bu ko jógee daal di jox suñ Mohamed Niang soxna Khady bismillah waaw salaamaaleykum maa ngi leen di nuyu yéen ñëpp di leen ziar man man la soxna Khady Niang nekk fii euh, si Seattle Washington imam euh, ñu ngi kontaan torop di déglu waxtaan bi ak xam-xam bi mais imam man dafa am benn question boo xam ne dama ko lu ma jaaxal la sama àdduna te dama koy laccé tout temps te ba tay amaguma ci ben réponse bu nga xamni vraiment euh, dalagum na sama xel dal pas dal sama xel sax mais amaguma ci suma ko mune waxé xeyna yow ding ma ci mëna dimbali man dama dëkk alaska ay ati ati at comme ñu né si diiné euh wéri koor koor fay commencé from fajar ba bu bu jant bi di sopp waaw léegi nag ma dund ba yàlla may ma ma dëkk si dëkk boo xam ni dafay am période boo xam ni mooy Alaska Juneau Alaska ah naaj bi du dugg naaj bi jant du so xam naa ne nag mhm. lu kéemaane la mais am na ñoo xam ne mhm. xam na lan wax lu mu doon xëy na yow man xam naa ne yow xam-xam tuuti waaw léegi nag voilà merci beaucoup léegi nag loolu laa bëgg a xam naka la parce que bu fekkee ni jante bi da ngay dem ba minuit mu mel ni yaa si bëccëg donc loolu lan moo si pexe nax kay nattee sa koor ban mm-hmm. heure nga war a dog jërëjëf ah. loolu doon sama question merci barakallahu fikum soxna Khady xam nga loolu du Alaska rek am na ci euh, yi Europe euh, ci boori Scandinavian si mm-hmm. ñoom tam dinañ am même situation bu mel noonu nga xamante ni jant bi six mois yi du dugg yeneen six mois yi du génn ndax fi ñu positionné wu la loolu xukma bi borom xam-xam yi joxe dañuy def xiyaas ci dëkk bi leen gën a jege da nga xamante ne bi ñoom ñu ngi gis jant muy dugg ak génn ñu natt ko ci ñooñu di woore ñooñu di dogandoog ñooñu maanaam su fekkente ne tey dañu ne woon tey di Detroit fii jant bi du fi soox du fi nii day continuer noonu waaye Ohio ñoom seen mm. seen seen jant bi dana dugg ak génn ñun waa Detroit wala waa Michigan dañuy xool ban heure la waa Ohio di dog di di um di commencé koor ñu commencé koor heure bi waa Ohio di dog ñu dogandog ñoom waaye mënuloo ñàkk a woor waaye te mënoo dëkkee woor mm-hmm. du waaw dëkkee woor ndax bu dee da xaar jant bu so da nga woor six mois yoo du lekk te loolu yaakaar naa ne foofu mbake mbake du fo dëkk wala ko sant si <laughs> wallahu a'lam xiyaas rek lañ koy mën a defee ci dëkk bi la gën a jege eh, nga xool ci heure bi ñuy bi ñuy commencé ak bi ñuy dog ngay def ngay rek xam mm-hmm. Mm-hmm. jërëjëf mm-hmm. imam beneen affaire bi tam mooy dafa am li nga wax léegi da nga ne bu fekkee da nga jënd par exemple or ñun jigéen ñi bu fekkee da nga ko def sa takkaay donc loolu doo ci asaka du nga wax waaw waaw léegi nag bu fekkee ni yow or bi bëri na nga dem ba jëmmi jamono ah xëy na soxla dal la nga nga nga xayma ko ne damay jaay or bi or bi nekk par exemple valeur bo am bu takku si xaalis est que loolu tam da nga siy génnee asaka wala lool tamit doo si génnee asaka jërëjëf loolu doon sama ñaareelu question merci. wallahu alam léegi ba tey itam euh, mi ngi dellu siwaat rek sa sa alal la joo moomoon nga jaay ko soo ko jaayee alal ji nga denc ko ba mu mat un an su boobaa xawlu la da nga koy génneel asaka mais bu fekkente ne or bi da nga koo jaay tey soxlaa la dab nga jaay ko jëfandikoo ko su boobaa doo génne asaka waru la ci ndax alal ji bi nga ko yoree mu war a génne asaka mat na nisaab waaye amul xawlu mi ngi mel ni nga yor sa alal nga yor sa nu mu tuddati euh, kër gi nga dëkk nga xëy ko jaay ko ndax soxlaa la dab bi nga ko jaayee nga sànq xaalis ba ndax wala da nga ko fayee avocat wala da nga ko fayee ay docteur wala da nga ko fajoo wala nga tukkee ko xaalis ba jeex doo ci génne asaka ndax kër gi nga dëkk du génne asaka mhm. yëre yi ngay sol du génne asaka takaay bi nga moom di ko takk du génne asaka heure bi nga ko jaayee nag yor ko muy kaas ci sa loxo bu matee xawul bu matee eh, ah, eh, temps bi jot mu mat un an te toll mhm. ci nisaab maanaam quantité bi mat li ñuy wooye trois mille cinq cent dollars yooyu su boobaa da nga ciy génne asaka mais buñ ko jaayee utiliser ko rek su boobaa alal eh, alal joo jot na matul xewlu génne asaka mën na la caa fekk wallahu nag aalam hmm. waaw ah, jërë ngeen jëf ci ci ci ci question yi waaye imaam tamit ñu ngi lay sargal eh, di la jaajëfal ci réponse yu am solo yi xanaa rek bëggoon a fàttali ne maanaam mbirum asaka googu ah, ITFA taxaw na ci am ci organisation bu takku boo xamante ne nii ñu ngi ñu ngi collecté ñi nga xamante ni dañoo bëgg a dugal seen ah, asaka ci ci fa Ah, ñu ngi koy dajale ba pare di ko jëmale ci communauté Sénégal sénégambienne bi bi nga xamante ne nii ñoo ko yeyoo donc képp ku ci bëgg a def sa contribution du bëgg ko daj def bëgg def sa asaka war koo joxe boo ko tegee ci loxo yi waaye it fa ñoom dinañ ko dugal ci yoon ci loxo yi ci ci yoon yi mu war a dugg. jërëjëf xaaj Jabel kon ñu fàttali rek ne ku ku am li nga xamante ne moo moo di sa zakatul fitr bëgg ko dugal wala te zakat rek am nga ITFA USA cash app. maanaam dollar sign USA wala 202 763 5253 wala it mën nga ko yónnee through Zelle nga def ko ci Tijaniya foundation at gmail dot com kon tabaarakallahu jërëjëf Haaj Jabel. sëñ waxtu wi di ñu dab sëñ Ibrahima la béyk xanaa li ma bëggoon dolli foofu rek xanaa buñ fekkee ni ñoo ngi koy yónnee ñu def si mémo bi euh, zakatul fitri wala azak pour ñu mën a xam am maanaam fu mujj fu ñu ko jëmee daal incha allah jërëjëf Serigne kon ci mémo bi rek ci message bi nga xamante ne mooy ànd ak envoi bi ngeen bind ci ne da ngeen di def idée seen zakatul fitr wala ngeen ne muddum koor wala ngeen ne zakat zakat rek bu ko defee ñu xam ne loolu fonds yooyu ci kees googu jëm jërëjëf Serigne Cheikh sëñ Mohamed Niang sa question bismillah allo asalaamaaleykum wa rahmatullah Euh, ñu ngi leen di ziar bu baax ñu ngi leen di ziar bu baax di rafetlu waxtaan bi. yaa ngi leen trop dina jëbati. donc benn laaj laa doon laaj ci mbirum zakat dama doon laaj léegi comme mbirum income tax yi ñuy jot. Mhm. comme yàlla defoon nga jot loo xam ni mat na nisaab ndax day day dañ koy war a génneel azaka wala. Mhm, mhm. jërëjëf. laaj laaj bu am solo la laaj bu am solo la euh, am na kii. parce que dafa del fond bobu dafa délicat amna ci lo xamanteni ni yow sa xaalis la bu ñu da nga overpay tax mu ne da nga overpay taxes ñu delloo la ko parce que li ñi overpay moy li ñi dajale won di la ko verser par mois li nga don dag li nga don dag chaque fin du mois ngay joxe bo warona fay 300 dollars ngay fay 350 wala 400 dollars nga nek ba année bi jeex ñu jox la ko som boobu ñew nonu sa xaalis bo fa don denc la ñu delloo la ko amna ño ñoo duñ fay taxes ci durant l'année dañuy nekk ba année bi jot nga bind chèque ñu xool li nga xam ne moom nga war a fay taxe nga fay ko su boobaa yow kenn du la fay doo amel kenn dara li nga amee rek ngay fay am na loo xamante ni gouvernement yi moo la koy jox ay subvention la pour sa njaboot boo yoree ay xale ay deductible lay doon somme yoo xamante ni xale yi ay cinq cent ren dégg naa ne yokk na xale yu ndaw yi ba âge bi ba âge bi gouvernement bi moo la ko jox pour assister la ko te buñ la ko jox buñ negee ba fin d'année bi ñu jox la ko loolu du sa du alal joo dencoon ba mat un an parce que calcul yu xaw a délicat lay doon dañ la ko jox mu ñëw ci fin d'année bi période boobu bu ñëwee di trois mille dollars soo ko lekkee période boobu du alal bi ñuy génnee asaka waaye bu fekkente ne ku mel ni man la ma njaboot yorot sama njaboot ñoom ñëpp tollatuñ age boo xamante ne nii gouvernement bi war na ma jox ma jox subvention mais ni amatuma benn kenn koo xam ne dama koy claim man ki sama bopp rek la may fay samay taxe ba fin d'année gouvernement bi delloowaat ma ci sama alal ci loolu taxe yooyu ñu delloo ma ci benn somme somme boobu mun naa nekk loo xamante ni sama xaalis bu ma fa dencoon la kon donc dina laaj nga consulter ak sa sa accountant somme bi ñu la jox lan moo ci li nga xamante ne nii sa yow yaa moom lu fa nekkoon la lu gouvernement bi téye la wala loo xamante ne nii euh, subvention la nga mun a distinguer ñaari lan lañ ciy génne asak ak luñ ci du génne asak ak lu ci mën misaal ba tey soko xolé a du nek ne leppay mat nisaab wala matul sax ndax bi commencé fay janvier nga commencé ba décembre le 31 décembre un an ba di nga la janvier ak d'ag février ak liñu d'ag mars diko tegle muy compliqué na complication dina calculer donc euh, pour mun la ci jox réponse bu euh, réponse mënuma la jox réponse bu leer ci ci question bi ndax ni mu xaw a compliqué ndax te fonds ndax fonds yi bokkuñu fonds yu bëri ñoo jaxasoo ci taxe mhm. wallahu alam maa ngi jéglu Mouhamed ci loolu xam naa comme ñoo bokk dëkk Detroit dinaa ko moom bu ma ci dollee gëstu laaj eh, ak suma accountant ba xam di you know the eh, exact correlation niñ koy mun a boole ba calculer ko mhm. tabaarakallahu imam yaakaar naa question tontu bi lu mu délicat délicat leer na ndax ni nga ko ci biir junj wax nga ne fonds yi nekkul ne at the same time la ñu dajaloo January ba décembre doon xaar ndax gradually lañ la koy dagg dafa mel ni rek suma jumul juumul euh, natt natt bi nga xamante ne yaa ngi koy cotiser chaque fin du mois bu demee ba mat un an ñu teggil la tamit même bu dee teggi nga xaalis bi am na beneen certain temps boo xamante ne xaalis bi war na ko def ci yow pour mu mën a mat durée bi nga koy génneel azaka ndax jamono ji nga koy naat nekkul woon ci sa loxo te du chaque jour laaj nekkul first month nga commencé dajale xaalis bi yëpp am na la nga xamante ne durée matagul woon kon yaakaar naa yooyu yeneen sujet la yoo xamante ne dañ koy delloowaat oustaz Assane Thiandoum tabarakallahu mu boole ko ci li nga xamante ne mooy topic si ñu mën ciy defaat yeneen gëstu ngir mën a génn yeneen précision par rapport ak yooyu waxtaan incha allah ahsantum jërëjëf Euh, tabarakallahu sëñ Omar Diop yaakaar naa waxtu waa ngi ñuy njët ñu jël dernière intervention bi rek bu ko defee daal di mën a euh, yëkkati jotaay bi sëñ Omar bismillah jërëjëf Cheikh Ibrahima maa ngi jégalu nag euh, ñu may mën a monopoliser kàddu gi waaye dama bëggoon laaj imam rek nii sànq dafa wax sànq ba dugg ci tabarakallahu ni ñu war a joxe azakat ci ci 401k 401k moom comme ni ñu ko xamee ñun ñëpp am na ci fonds yoo xam ne tabarakallahu ay investment fund yoo xam ne fañ koy dugal méngoowul ak diina lool ndax loolu matul bàyyi xel ci ci ci ci ci nisab bi mooy deuxième question bi tam xam naa ne mën mën nañ ko sax leb bañoon leb deuxième question parce que fi ne daf mel ne temps bi mën nga ko mën nga ko ci dugal dugal ko ci rek ñu daal bon baax na bon baax na jërëjëf beneen question bi ma am mooy xawlu bi ñuy wax sànq ndax boobu kay dafa doon benn benn benn rolling fund bon léegi xawlu bi bon soo jàppee ni two thousand ñoo ngi ci two 21 ndax hmm. yow form nga 2019 ba 2020 loolu ngay jël wala wala wala da ngay jël rek som euh, som bi nga xam ne moo ci ci ci balance bi euh, hmm. waaleykum salaam sëñ Omar mënoon mënoon ngaa tontu laaj bi mu daaxala woon ma ko mu rek wala wala contribution la <laughs> <laughs> Allah léewlu lu am solo la maa ngi fàttaliku joxe woon nga dugaloon nga ko tam ci bu ñuy waxtaanee fële ci convention ba mu am solo trop foron wan man sama bopp laay jël exemple fi may liggéeyee euh, suma financial advisor ñëw na plusieurs fois di ma indil ay ay ay ay portfolio pour ma investir ci foron wan ke musuma ko nangu ndax musuñu musuma mën indil benn boo xamante ne bu xalaal la hmm. te waaye gi africain su ma investir woon ci benn bu demee ci communauté bi pour wax leen ko danaan fii la imaam investir hmm. ñëpp dañ koy investir mu nekk bàkkaar boo xam ne damay yenu sama bos yenu bosu keneen hmm. li ma ko mu munte nangu mooy investir sa dërëm sa su fooroo wan kii ci loo xamante ne nii du xalaal am na ay investment yoo xamante ne nii lu xalaal la mu mën mën nañ caa investir li nga xamante ne nii dafa xaraam buñ ci xa sa fooroo wan kii waru caa dugg maanaam bu dee sa portfolio dafay dem ci ay ay banques yoo xam ne day lebale waale xaalis di charge interest su dee day dem ci night clubs wala dafay dem ci uh, gambling houses wala dafay dem ci company yuy manufacture uh, uh, nu mu tuddati prohibited products such as alcohol ak pork ak wala what not yooyu yëpp sa xaalisu bi lay dugalal sa 401k munoo ko faa investir su fekkente ne fa ngay liggéeyee ñoom ci foofu dong lañu wara mëna investir yow l'islam mayu la nga investir fa sa xaalis kon donc loolu mooy li nga xamne lu am solo la ci forowanke oh ñu bayyi xel bu baax ci fan lañ koy duggal ak fan la mëna fan la fan lañ ko mëna génné euh fan la sa xaalis wara mëna dugg yow nit ki doom adama ji li nga mënta jëndante jaayante waroo caa mën a dugal say say investment pour ëllëg kanta foro oh forowanke bi nokoy calculer ba léegi dafay dellu siwaat ci la rek man personnellement li may jël mu gën maa pour mu maa yomb rek mooy ne su période bi jotee mooy su weeru koor jotee ci laay génne sama asaka sama fond bi ni mu toll moom laay jël mu multiplier ko par two point five génn ci asaka am na loo xam ne nag ci année bi lañ ko la fa nekk am na loo xamante ni barki démb la fa dugg loolu ma duggagul ci li nga xam ne mat na xawlu waaye pour save sama bopp di headaches ak the difficulties of calculation bi loolu mooy tax may boole global te boo xoolee two point five pour cent bëriwut two point five pour cent bëriwut boo ko calculer ci lu mu mën a toll unless que nga yor million dollars wala nga yor millions of dollars soo xasee ba yor loolu nag la muy laaj rek mooy nga gis sa accountant mu calculer la li nga xam ne def na fa xawlu li nga xam ne def na fa un an ferme li fa defagul un an duñ ci génne asaka su doon fi mu nekk nii commencé woon nga tey li nekk ci sa compte bi ci weeru koor bi premier jour koor li fa nekk ba déwén lii dugg si ñëw gannaaw premier fanu koor gi matatul matatul nisaab su fekkee ne dugg nañ ci premier fanu koor gi deuxième fanu koor gi nga dugal fa xaalis bu dewen jotee fu ñu feeg yegg si wuñ ci deuxième fanu koor gi matul un an yaa ngi gis li ma kon donc yow fi ngay xoolee rek mooy xaalis bi bi ma ko dugalee ba ci période bi li nga xamante ne ni versé woon naa ko depuis le deux deuxième jour di Ramadan di deux mille twenty ba deuxième jour Ramadan deux mille twenty one loolu mooy li nga xamante ne nii am na nisaab li ma dugaloon troisième jour Ramadan bi muy del si ak la ca toppandoo lépp loolu matul xew ke mat li muy matee un rek mooy bu ma demee ba del siwaat ci date période bi nga xam ne falaa ko dugale woon ci lañ koy boolee calculer ko wallahu aalam jërëjëf dégg Cheikh Ibrahima bon bon li mu wax man islamic calendar la la indi de waaye indiwul bon. Euh, euh, ah kay ah, euh, nekkul du premier janvier au premier janvier. jërëjëf waaye premier bésu weeru koor ba ñaareelu bésu weeru koor at mi ci topp. Mm-hmm. première bésu tabaski ba bésu tabaski bés bi ci top at ma ca topp kon tabaarakallahu ci weeru islamique lañ koy seete. tabaarakallahu ñu ngi am Haj Pape Ndiaye Guèye mu ngi ñuy yëgal ne. amaana funds wala waxit investment doon na loo xamante ne mën ngeen ci seen alal seen investment kon tabaarakallahu bés bu ngeen bëggee invest ci wàllu woowu mën ngeen ci jokkoog moom waxtu yi def ñoo njat ni ñuy def mooy tabaarakallahu daal di jox imam mu joxe li nga xamante ni moo di dernier kàddoom maanaam li nga xamante ne moom lay tàggoog jaam yi ñu ñaanalante ba suba incha allahu taala même heure même fréquence mu doon fii nga xamante ni moo di Itfa Radio bi Islamic Tidjaniya Foundation of America Radio imam lan ngay tàggatoog jaam yi tabaarakallahu bismillah ñu ngi sant yàlla borom bi subhaanahu wa bu ñu defal tawfiq ba ñu mën a daje ci euh, plateforme bi di sant euh, Serigne Ahmed bi nga xam ne moo facilité plateforme bi di sant euh, Oustaz Thiandoum mi ñu woo ak Serigne Ibrahim mi nga xamante ne ni yaa doon programme ak mbooleem ñi nga xamante ne ni ñu ngi ci plateforme bi doon déglu euh, ak ñi nga xam ne ñi ngi doon laaj ak ñi ngi contribuer ñëpp ñi ngi gërëm ñëpp di ñaanal ñëpp ñu ngi leen di balu xaq di leen bal xaq di sàkku nge di ñaan yàlla mu boole ñu baal ñun ñëpp may ñu ñu teewee euh, weer wi déwén bokk ci ay euh, at yi nga xam ne moo dàq at yi jàll woon suñu jaamu yàlla yëpp yàlla nanguñu ko te jéggal ñu suñu rëcc rëcc suñu way jur yi jiitu yàlla yërëm leen te yeexañu suñu njaboot yàlla tekki loxoom te sàmm leen te aar leen di ñaax nit ñi rek comme ni may ñaaxee sama bopp ñu am muraqaba jullit dafay am muraqaba lépp lu muy def ci muraqaba la koy teg maanaam yëg ne yàlla you're being observed the Muslim has to know that he is always observed yàlla mi ngi lay xool ci lépp looy def ku lay xool nag boo booy dawal sa oto tege ci kaw tali bi nga gis police bu ne la police nga fay sa radar bu ne la there is a police uh, police police ahead of you wala police detective su boobaa da nga teggi sa tànk fi li nga doon daw na nga xam ne nañ yàlla is detected all the time wala he's detecting you at all time suñu defee loolu rek suñu lépp dana dana dana tege ci yoon lii mooy li nga xamante ne ni buñ ko jëfee dañ nekk dëgg dëgg jullit yàlla ci boppam moo ñu wax ci xadisul qudusi boobu ma la waxoon moom la suufi di wax suufiyanke di wax ni mm-hmm. bu jëfi joom aadama ju biiram yemee jëfi biteem yàlla ne kii sama jaam bu dëgg la kon nañu bàyyi ci xel ci suñu jëfi biir yem ak suñu jëfi biti ñu mun a nekk jaamu yàlla yu dëggu euh, ngeen baal ñu àq ci kàddu yi lépp luñ fi wax lu dëng ci sunu matadi la lu ci jub ci baaxu yàlla la ñu leen koy balu àq ngeen ko jéglu ñaan yàlla mu boole ñu jégal ñun ñëpp wa axiri daawaana an alhamdulillahi rabbil alamin jërëjëf oustaz Abdoulaye Ndaw tabarakallahu daawa bi am na solo waxtaan bi am na ñuy gërëm au passage xaaj Jabel Diom ca North Carolina mi ñu àndaloon ci jotaay bi waxtu wee ñu njett waaye jotaay bi jeexul wolof nee na lu jiw ba jeexul jugu fa tabarakallahu every Thursday every Friday from 10 pm to 12 ñu ngi ànd ak yéen fii ci même channel bu ngeen demee ci li nga xamantene ne moo di ITFA Institute di ngeen ñu seetaan ki leen doon indil kàddu yi di seen mbokk seen xarit Ibrahima Diop fii ci studio Darul Habibi New York ñuy sant yàlla di julli ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam di ñaanal yàlla suñu sëriñ sëriñ Sidi Ahmed yàlla na yàlla gën a guddal fanam gën a dëgëral taxawaayam mu yàgg ñoo jiitee sant nag ñi nga xamante ne ñoo nekk tabaarakallaahu ci équipe bi ci njiitalal suñu yaay maa jigéen sek si ànd ceeg ñëpp ñi nga xamante ne ñu ngi ci ëttu ITFA tabaarakallaahu ñu ngi leen di sant leen gërëm lu juboon ci kàddu yi ñu xam ne mbaaxuk suñu borom la lu ci dëng ñu xam ne matadik doomu aadama la suñu mujjantalu kàddu ci kaw suuf yàlla na doon kalimatu la ilaha illallah muhammadu rasulullahi sallallahu alayhi wasallam di leen di ñaanal kooru jàmm wa akhiru daxwaana wa alhamdulillahi rabbil alamin wassalaamu alaykum wa rahmatullahi taala wa barakatuhu jërëjëf jëf ci ànd ak taamu bi ngeen taamu seen rajo ITFA Islamic Tijaniya Foundation of America rajo Alfayda doon rajo bi nga xam ne dafay fasciné ànd ak yéen ci lépp li nga xam ne rek moom moo soxal diine bi rajo Alfayda mu ci dafay wéyale ak yéen ci ay émissions yees jëm ci wàllum actualité dolli ci rajo Alfayda mu ngi leen ay programme yu bees jëm ci lépp li nga xam ne rek moom moo soxal askanu waa Sénégal ak askanu waa Gambie yi nekk fii ci améric ak gox yi ko wër rajo Alfayda daal rajo bu wóor tey leeral